judd yonent bi alayhi salaatu salaam waxtaan ci xëy na du ci jëmmi judd yonent bi alayhi salaatu salaam sax xëy na ci lañuy waxtaan waaye ci ndax bis bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam judd feet la bu ñuy feetoo ci lislaam wala déet loolu xëy na benn laaj la boo xam ni moom la ñu jéem utal tontu mooy ndax juddug yonent bi alayhi salaatu salaam feet la waaleykum salaam wa rahmatullah feet la bu ñuy feete ci l'islam wala dëkk loolu nekk laaj boo xam ni xëy na yi benn jamono parce que du naka jekk waaye depuis xëy na benn jamono tontu ko lu xaw a wutalee tuuti jullit ñi la ndax ñoom ñëpp bokkuñ niñ koy tontoo yonent bi alayhi salatu wasalaam la shakk ne moom ci boppam xéewal la ci ñëwam ci li la wax ne laqad manna allahu ala almuminin id baasa fihim kon biasatuhu salawatullahi wa salaamuhu alayhi fadl la nicma la ci jullit ñi kon mooy xéewal di xéewal borom subhanahu wa taala mu judd ci amul fiil muy jamono ji nga xam ni ci la am benn xew-xew bu rëy bu xew ci makka mooy xëy na dafa am lenn ci ñu doon tuddee alwasaniyin mooy ñu daan jaamu ay xërëm ñu jote woon ak lenn ci beneen kuréel bi ci des ñi nasaara muy chrétiens yi ci jamono jooju ba uute yi seen biir àgg ci di tàmbali di e, lakk ay bërëbu jaamukaay yàlla lenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon jaamu ay xërëm ci jamono jooju dañoo taal benn église boo xamante ni chrétiens yi ñoo ko moomoon loolu metti leen ba tax ku ñuy tuddee Abraha takkoon benn armée bu rëy daal di jëm ci kër gi nga xamante ni bi jamono yooyu arab yi ñoom moom lañ doon puukarewoo muy Makka mun ne daf koy daane daf koy màbb bi mu demee ba jib ko yàlla subhaanahu wa taala daal di wàcc ci moom mbugalam moom ak gaayam àndaloon ndax bi mu ñëwee ba jib makka ak kuréel gi mu àndaloon li ko dara njëkk jaaxal mooy dafa gis ne kenn doxul digganteem ak kaaba gi ñu génn ñoom ñëpp seetaan ko ak néeg boobu mu laajte loolu lan moo ko waral lan moo tax li nga xam ne ñoom moom lañ gën a fonk taxawuñu waaleykum salaam wa rahmatullah teg seen bakkan ngir défendre ko Abdul Muttalib tontu ko tontu bu xereñ ne ko ñun de suñu alal lañ moom man samay gëléem ak sama alal lay jël sàmm ko dem wattu leen néeg bi am na borom moom dina ko wattul boppam yàlla subhanahu wa taala wàcc ci seen kaw mbugalam mooy lim ñu nettali ci alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil mbugal yàlla wàcc ci seen kaw le fekk que mu mbugal leen alak leen nekkul ne yàlla subhanahu wa taala da cee jublu dimbali ay jaamukati xëram ci ay jaamukati yàlla ndax nasaara yi ci jamono jooju ñoom ci diine ji ñu nekkoon kenn nasaxaw ku ko woon su boobu lislaam wàccagul kon ñoom diine ji nekkoon diine la ju wàcc jóge ci borom bi subhanahu wa taala donte xëy na jamono jooju fekk na tàmbali nañ koo soppi te terewul yàlla subhanahu wa taala ñuy jàmm xëram la mel ne ñoom la dimbali ndax mbugal bi leen mbugal mais tekkiwul loolu leneen lay tekki li muy tekki mooy li tax yàlla subhanahu wa duma leen mooy dafay sàmm néeg bi nga xam ne symbole la ci diina joo xam ne ëllëg dina judd ji ñëwagul yàlla subhanahu wa bi muy dimbali jamono jooju muy muy alak abraha ak ñoom àndaloon dimbaliwul alwathaniya mais mi ngi doon dimbali l'islam ci kaw nasraniya mu sàmm néeg boobu nga xam ne siiñ lay doon symbole lay doon ci diina joo xam ne ëllëg dina ñëw moom mooy représenté ci kaw suuf diine jooju nit bi yàlla def ne xew-xew boobu dafa jàll teguñ ci lu yàgg yonente bi alayhi salatu wasalaam juddu mu mel ne kon loolu introduction la woon bu yàlla doon def ngir préparer juddu ñëwub yonente bi alayhi salatu wasalaam kon xew-xew boobu lu bari lay junj ci ñëwam moo tax ñëwam lu rëy la loolu kenn sikki kaw ci mu ñëw juddu nekk ku ñàkk baay ndax laata muy juddu fekk bàyyam gaañu na bi mu juddoo mu juddoo dund ak ndeyam tuuti moom tamit mu gaañu nee nañ juróom-ñaari at ñenn ñi ne juróom-ñetti at ci la ko fekk mu am ndeyam tamit gaañu ci yoon wu mu doon dem Madina jamono yi ñu koy woo Yasrib di ziyaara ji ay mbokkam mu gaañu ci yoon wa yonente bi alayhi salatu wasalaam nekk xale bu ndaw amul baay amul ndey maamam yore ko lim ko yor yàggul xëy bi muy am ay juróom-ñeenti at moom tamit mu gaañu mu des ak baay te di Abi mu yore ko di ko taxawu ba ni mu màggee ba yàlla subhanahu wa taala yebal ko léegi nag li wax ji mooy ndax moom ñëwam boobu mooy judd bis bi nga xamante ni moom la juddoo bis bu ñu xam la ci lislaam jàpp ko ne bis sàngam la comme ni ñu xamee bisu tabaski ak korite wala beneen bis ci bisu lislaam yi ne bis boobu saa bu ñëwee feet la boo xam dañ ko war a feet ngir màggal judduk yonentu bi alayhi salatu wasalaam walla déet léegi loon tontu laaj boobu dañ koy jéem a tontu ci taqrir ay qawaid mooy ay règles yoo xam ni yu am solo la nit ki xam ko d'une manière général ci bunt bi nga xam ne mooy buntu jëf mooy saxuk jëf ci lislaam ak ñàkk a saxam mooy nit buy jëf ci lislaam lan la war a jëf dafa am ay règles yoo xam nit ki dafay baax mu xam ko pour xam lan la war a diine woo ci digganteem ak boroomam ak la lan la warut a diine woo mooy loo xam ni boo ko defoon ne da koy defal yàlla ngir jege ci boroomam subhanahu wa taala contraire bi lay am mooy au lieu am ci tuyaaba bàkkaar la ci am ndax yàlla sant ko ko kon day baax nit ki xam foofu ay yenn qawaid mu yenn règle yoo xam ni yu wér la yu mucc ayib la yu général la tamit ngir mu yombalal ko comprendre li ñuy wax ci kanam li ñuy wax ci kanam mooy tontu laaj boobu léegi li ci njëkk mooy ne dafay laaj nit ki ñun ñëpp ñu bokk fàttaliku benn qaida mooy ne anna allaha taala ixtaara muhammadan alayhi salatu wasalaam wa arsalahu ila jamii albashar li yuxrijahum min alzulumaati ila annuur fa kaana xaqan alayhi an yuallima annaasa kulla ma yaclamuhu lahum min xayr wa yuxadirahum min kulli ma yaclamuhu lahum min shar li njëkk ci qaayida bi njëkk bi ñuy tàmbalee waxtaan bi mooy ñu fàttaliku ne yàlla subhanahu wa taala moom moo tànn Muhammad alayhi salatu wasalaam mu tudd al muxtaar di ku ñu tànn al mustafa al mujtaba yàlla tànn ko ci anam yu bari comme ni ko Abdullah bin Masud waxee ak moom ni mu ko waxee ci ne yàlla daf ko tànn mu wax ci naka la ko tànnee ba mu nekk kañ mujjee tànn Abdullah bin Mas'ud tamit wax na yàlla dafa xool ci xolu jaam ñi gis xol bi ci gën a mucc gën cee laab di xolu Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu tànn ko ngir mu jottali euh, ab yónnentam kon yàlla subhanahu wa moom la tànn ba mu ko tànnee yebal ko ci jaam yi daf ko yebal ci mbindeef yépp yebal ko ci doomu aadama yépp ngir mu génn leen ci lëndëm lëndëm yi réer ak ñàkk xam yóbbu leen ci leeruk lislaam loolu waral ci moom lan waral ci moom lépp lu mu xam ci lu baax mu jottale ko nit ñi amul lu mu ci war a lu mu ci war a ñàkk jottali ndax mission moom moo ko waral ndax yónnent gi ko yàlla yónni moo ko waral ci moom mooy ne lépp lu mu xam ci lu baax daf ko war a jottali jàngal ko nit ñi waru ci nëbb dara beneen bi ci des mooy ne lépp lu mu xam ci lu bon mu moytandikuloo ko nit ñi moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam di wax ci xadis ne yàlla yonent bu mu yebal ci aw nit dina nekk kaana xaqan alayhi dina nekk lu war ci moom mu tegtal leen lépp loo xam ne xamal na leen ko ci aw yiw moytandiku loo leen itam lépp lu mu leen xamal ci loo xamante ni safaanu yiw la lu baaxul la mu moytu looleen kon loolu lu war la ci moom salawatullahi wa salaamuhu alayhi wareef boobu ndax def na ko wala taxaw na ci wala taxawu ci gàttañ lu na ci am déet loolu dina gën a leer si kanam insha allah ndax qawaid yi xëy na duñ ci taxaw trop parce benn bu nekk boo ci taxawee wax ci lu bari dangay ngay muur yi ci des beneen qaayida bi ci topp mooy ne <clears throat> an allaha taala amarahu bilbalaag wa adami alkitmaan fa qaala lahu ya ayuha alrasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafal fama ballagta risalata wallahu yaasimuka min annas mu ne yàlla subhanahu wa taala bi mu ko yebalee daf koo digal mu jottali daf koo woo ne ko ya ayuha rasul yow yonent bi ci turu rasul ci turu risala la ko woowee mooy da koo woo comme di ko fàttali mission ne ko yaa ayuha rasul yow yonent bi mooy dañ laa yónni kon jottalil yónnent gi nga xam ne moom la la sa borom yónni boo ko defulee day defuloo lam la digal defuloo lim la sant ndax dalaa yónni jox lan mbir ne la na ko jottali ci nit ñi kon loola boo ko jottaliwulee mooy yónnent gala la yàlla yónni woon mataluloo ko defuloo ko loolu tamit règle la boo xam ni dañ koy fàttaliku ak teewlu ko tamit ci tàmbali waxtaan bi mooy ne yàlla subhanahu wa taala amara annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bil balaag wa nahaahu an alkitmaan mu tere ko ne ko waaleykum salaam wa rahmatullah mu tere ko ne ko bu mu ci nëbb dara bu mu ci denc dara moo tax Aïcha radiallahu anha ci aaya bi la tegtaloo mu ne man xaddathakum anna muhammadan katama shay'an faqad kadab mu ne képp ku leen nettali ne muhammad alayhi salaatu wasalaam nëbb na dara mu ne juum na képp ku leen nettali ne muhammad alayhi salaatu wasalaam nëbb na dara juum na moo tax ali ibn abi talib radiallahu anhu biñ ko laajee ne ko ndax yonent bi alayhi salatu wasalaam yéen waa këram da leen a jagleel ci xam-xam ali def na déedéet yonent bi alayhi salatu wasalaam jagleeluñu lenn nit ñi ñoo uute rek ci dégginu diine waaye maanaam nit ñi bu ñuy rawante ci déggin bu yàlla di baaxee nit la ñuy rawante déggin bu mucc ayib ci diine ci li yonent bi indi fa la ñuy rawante waaye nag mu jël leen jagleel ko ñenn bàyyi ña ca des loolu yonent bi alayhi salatu wasalaam def ko kon wax jooju Aïcha wax lu ama am solo la ci kanam dina ñëw ne alimam malik mi ngi wax tamit ne man man ibtadaa fi lislami bidaatan yaraha xasana faqad zaama anna muhammadan xaana risala képp ku def benn jëf ci lislaam ginnaaw bi fi muhammad alayhi salatu wasalaam jóge jëf boo xam ne jële woo ko ci moom moo xam da ko inspiré woo ci dara wala nga xalaat ko rafetlu ko fent ko def ko ci lislaam muy lu ñu fent mooy loo xam ne jógewul ci moom digalu la ko def ko nga jële ko ci moom loolu dina ñëw explication wu ak leeralu maanaa bidaa ci boppam mooy lan mu ne loolu loolu mu jëf lu muy tekki moo tax daf ne faqad zaama anna muhammadan xaana risala loolu lu muy tekki mooy ne muhammad alayhi salatu wasalaam dafa échoué ci mission am dafa échoué ci mission lan moo tax mu échoué ci mission am mooy naka ngay mën a jëfee jëf bu baax bu ñuy askanale l'islam di jëf bu ñuy jegee yàlla subhanahu wa taala ci ginnaawam te moom jàngalewu ko woon lu tax moom jàngalewu ko da koo xamul woon wala ndax da koo xam bañ koo jàngale ñaar yooyu boo ci tontu ci question yooyu ba léegi eh, da ngay dugg dugal ko salawatullahi wa salaamu alayhi te moom du dugg yow yaay dugg waaye moom du dugg mooy na kon bu fekkente ni jëf boobu jëf bu baax la bu ñu mën a boole ci lislaam di ko yokkoo di ko gën a jege yàlla mu bàyyi ko jàngale lislaam ba dem te waxu ko yow nga ñëw découvrir ko ci ginnaawam jàngal ko jullit ñi ak léeg-léeg sax xëy na liñ ciy wax lépp ci ay ngëneel ak importance biñ koy jox la fekk mu bañoon koo jàngale mooy wane ne kon échoué parce que moom looloo a ñëw mooy warul woon bàyyi dara te moom salawatullahi wa salaamuhu alayhi moo doon wax ne maa alimtu min amalin yuqarribukum ila allah wala ma taraktu shay'an alxadis fi mustadrak alxaakim ak fi lumm lilimam alshafii mu ne ma taraktu shay'an yuqarribukum ila allah wa yubaidukum an annar illa wa qad amartukum bih wa ma taraktu shay'an yuqarribukum ila annar wa yubaidukum an illah illa wa nahaytukum anhu bàyyiwuma dara loo xam ne da leen di jegeel seen borom di leen soril safara lu dul ne digal naa leen ko sant naa leen ko ma taraktu shay'an la wax bàyyiwuma dara bàyyiwuma dara itam lu leen di soril seen borom di leen jegeel safara lu dul ne tere naa leen ko kon bu dee jëf boobu ci buntu boobu lay dugg te moom jàngalew ko mooy na kon waxam jooju nekkul lu wér salawatullahi wasalaamuhu alayhi kon loolu itam lu jar a bàyyi xel la qaayida la boo xam ne ci tàmbali waxtaan bi ñu teew la ko bu baax a baax beneen qaayida bi ci des annahu sallallahu alayhi wa sallam aalamu alxalq bilxaq wa ansaxu alxalqi lilxalq wa aqdaru alxalqi ala bayani alxaq wa man ijtamaca fi xaqihi kulli hada kaana bayaanuhu lilxaq awdaxa min bayaani kulli axad alimam ibnu ibnu ibnu taymiya rahimahullah rahmatan waasica dafa taaqid benn qaacida mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy ki gën a xam ci nit ñi dëgg nit mënul gën a xam yonente bi alayhi salaatu wasalaam dëgg moom la yàlla wax ne ko wa innaka la ala alxaqi almubin yaa ngi ci dëgg goo xam ne gu bér la amul sikki sàkk kon mooy ki gën a xam ci nit ñi dëgg ndax dëggam yàlla sax moo ko ko garantiral dëggam moom yàlla ci moom lay wàccee sax dëgg di ko jaarale ci moom ne ko jox ko nit ñi wa qulil xaq min rabbikum mooy ki gën a mën a leeral itam ci nit ñi dëgg amul ku gën a mën a leeral yonente bi alayhi salatu wasalaam dëgg amul moo doon wax naan inni utiitu jawaami al mooy wax benn wax bu gàtt ñaari phrase doomu aadama yi ci coow ci seen jamono jëpp di ci coow duñu sax mën a jeexal ay sansam yàlla da koo tënkaloon wax yàlla da koo tënkaloon wax dafa amoon jawaamiul kalim mooy itam ci gën a nam ma leeralal nit ñi dëgg mooy moo maanaam ki gën a xër ci nit ñi gën a yëwan ci nit ñi pour leeralal nit ñi dëgg laaye leen biir amul ku gën a am ñeewentu ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ci xamuk nit ñi dëgg amul moom moo daan am naqaru xol ak métti ci nit ñi dummóoyu biñ dummóoyu dëgg di ko yàlla jox ak nangu ñàkk biñ ko ñàkk nangu ba yàlla di ko yërëm ci loolu naan ko fa laallaka baaxiun nafsak in an an laa yakunu muminin ak laallaka baaxiun nafsaka ala athaarihim in lam yuminu bi hada alxadisi asafa ne ko di nga ci naqar booy naqarlu ñàkk gi ñàkk gëm li la yàlla subhanahu wa jox loolu lu ko waraloon mooy xër gu mu xër ci nit ñi xam dëgg nangu ko ànd ci moo tax yàlla meloo ko ne xarisun alaykum ku xër ci yéen la lépp lu leen di jariñ rek yonentu bi alayhi salatu wasalaam ku ci xër la kon ñett yooyu ku mu daje ci yow mooy ne mooy ki gën a xam dëgg mooy ki gën a mën a leeral dëgg mooy ki gën a bëgg a leeral dëgg ñett yooyu ku mu daje ci yow dëgg ci yow rek lañ ko war a mën a jële sax wala la yonentu bi alayhi salatu wasalaam dëgg moom mooy balluwaay bi nga xam ne ci moom lañ war a jëlee ji dëgg kuy seet dëgg rek ci moom a dellu kooku xaayda la mooy ne kon di wër lu leerul ci yow ci waxi keneen ku dul yonente bi alayhi salatu ndax sa bopp la diine loo ci am loo ci soxla bëgg koo leerlu ci moom nga ko war a nit loo ndax leeral na ko moo tax laata muy faatu mu doon wax naan taraktukum ala ma bayda layluha ka nahaariha la yazigu halik loolu bu sañee wax parce que dafa am lu mu def ba pare moo tax mu sañ koo wax bu gàttañ lu woon rus naa jàkkaarloog ay àndandoom di leen wax naan leen bàyyi naa leen ci yoon wu leer nañ yoon wu leer nañ guddeem ak bëccëgam ñoo yem ci leeraayam ku ci jàdd rek mooy ku xamante ni yàlla dafa namoon ci yow ne da ngay sànku ku nam ma rek mooy jàdd teggi tànkam ci yoon woowu di jël weneen yoon kon loolu bu ko mënee wax mooy ne kon dafa jottali dafa jàngale njàngale mu leer moo xam ne njàngale mënu koo gën a tee leer salawatullahi wa salaamuhu alayhi ak itam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam ma tawaffahu llahu illa ba'da an akmala allahu ddin wa atamma nicma mooy ne yàlla subhanahu wa taala faatul yonente bi alayhi salatu wasalaam lu dul ginnaaw bi nga xam ne ci la yàlla subhanahu wa taala matalee diine mottalee xéewalam ci jaam ñi laata muy faatu yàlla subhanahu wa taala xamal nañu ne matalal na mat matal na diine di mu wàcce woon ci moom muy islaam yàlla subhanahu wa taala wàcce aaya ne al yawma akmaltu lakum diinakum mooy bis bu ñu xam di tamit lu ñu xam al yawma al boobu li taarif la li taarif mooy ne bis bii kon bis bu ñu xam la matalal naa seen diine akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa atmamtu alaykum ni'mati ma mottali ci yéen sama xéewal mooy ni'matu alhidaaya parce que ni'ma ñaari ni'ma la ni'matu ma taqumu bihi al adyaan wa ni'matu ma tasluxu bihi al abdaan xéewal goo xam ni ci la nit ñi di gindeekoo ci la nit ñi di xamee dëgg ci la nit ñi di tegoo ci siraatul mustaqim mooy xéewal gi gën a rëy ci xéewal yi mooy li yàlla li ñu doon wax ci suratul fatiha bu ñu julli naan ihdina ihdina sirat al mustaqim sirat alladina an'amta alayhim mooy kon ni'matul hidaya beneen nema bi ci des mooy nematu ma tasluxu bihi al abdaan wala ma taqumu bihi al abdaan mooy xéewal bi nga xam ni mooy xéewal bi aju ci wàllu yaram ci wàllu yaram mais xéewal bële ci wàllu ruux lay aju ruux xéewal bi aju ci wàllu yaram lu mel ne lekk gi ngay lekk naan gi ngay naan ak yëre yi ngay sol ak yu mel noonu bële moo gën a màgg kon bële moom la yàlla mottali ci matal gi matal islam ndax bu matalee islam diine kon mooy mottali na xéewal googu mooy xéewalu kon al hidaaya wa raditu lakum al islaama diinan ma gërëmal leen islam muy diine même al bi moo dellusiwaat muy al islam ma gërëmal leen islam muy diine islam boobu di islam bu ñu xam mooy li ñu tuddee al ahdu zihni mooy loo xam da nga koy junj te ki wax waxal xam na loo ci loo ci namm islam mooy l'islam jooja nekkoon ci jamono jooja jamono ji yàlla subhanahu wa di wàcc aaya bi loolu mu wàcce woon ci yonente bi loolu la yàlla wax ne loolu la xam la ne gërëm na ko loolu la xam le ne képp ku faatu indaale ko yàlla subhanahu taala gërëmal na la sa diine jooja kon leneen lu ñëwaat ginnaaw loola yàlla subhanahu taala gërëmu ko kon matal diine laata yontu bi alayhi salatu wasalaam di fi yàlla def na ko moo tax si kanam dinañ gis ne am na ay qawaid yu ñëw di wane ne bu fekkente ni léegi nit ki dafa ñëw ci ginnaaw bi mu yokk ay jëf yoo xamante ni jamono jooju existé wul ñoom xamuñu ko woon yaa ngi koy jëf tey ñoom buñ jël si waatoon dañ lay laaj ne li ngay jëf ni lan la loola kon bokkul ci islam boobu yàlla doon wax naan wa raditu lakum al islaama diina ñaareel bi aussi mooy dafay mel ne luy contesté wax bi yàlla wax ne ak akmaltu lakum diinakum matalal naa leen seen seen diine ndax yow da mel ne ku ne déet matul ndax yàlla subhanahu wa bi muy wax ne matal naa seen diine jamono joojo da doon tëj buntu sos ci diine ndax bu fekkoon ne mën nañoo yokk leen di ko indi ci ginnaaw bi di ko rafetlu di ko yokk di ko jëf yàlla du wax ne matal naa danaan yonente bi alayhi salatu salaam bàyyil diine ji noonu sa jaam sama jaam yi ñëw ci ginnaaw bi ku fi lu dara mu baax ma dolli ko ci kon loolu lay wax mais yàlla na ma tëj bunt boobu moo tax azza wa jal laata yonente bi alayhi salaam di faatu mu tëj bunt bi ne diine ji mat na ndax moom moo doon wax yi di ko jox mu ne wàcceetuma dara waxeetuma dara lii doy na ci ci man loolu moo tax kon nit ki war a doyloo diine jooju yàlla subhanahu wa ne doy na yàlla moo ne doy na nit ki def ko war a doyloo doyloo ko mooy jël ko yem bu dajeeg boromam subhanahu wa taala mën a am ngant mais leneen lu mu def bu deewee bu ko yàlla laajee ngir mu am tontu dina jefe lool. loolu beneen qaayida la kon mooy ne yàlla laata muy faat yonente bi alayhi salatu wasalaam matalal na diine moo tax alimam malik ne fama lam yakun yawma idin diinan laa yakunu al yawma diina loo xamante ni bis booba jamono jooje yàlla di wàcce aaya boobu di wax ne matal na diine ji loo xamante ni bokkul woon ci diine ji mu ne tey du mën a bokk ci diine ji al imam malik ibn anas imaamu daaril hijra loolu la wax comme ni ko al imam shatibi di naqlee ci moom fil i'tisam di wax ne loo xamante ni bokkul woon ci diine ji ci jamono jooju du mën a bokk tey si diine beneen bi si des muy qaayida bi si topp mooy ne dañu war a xam ne annahu huwa al musharri huwa huwa al musharri an illah yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy kii tëral diine te di ko jële ci yàlla subhanahu wa taala fala yu fala yutalaqa charu illa bi naqli saxiixi anhu diine de su ko jëlee lu dul ci moom waaye nag ci toxal boo xam ne toxal bu wér la mooy ne diine si moom rek lay jóge salawatullahi wa salaamuhu alayhi ndax moom moo koy tëral te jële ko ci boroomam subhanahu wa taala kon yow jullit bi li nga war a xam mooy ne sa diine mënoo koo jële feneen fu dul ci yonente bi alayhi salatu ñu la ko toxalalee ci boo xam ne bu la kon bu ci ñaar yooyu dajee ñu mën ko tuddee diine ñu mun ko tuddee charia mooy loo xamante ne bi ci moom lañ ko jëlee ñaareel bi aussi mooy jële bi ko jëlee ci moom nekk jële win boo xam ne bu wér la mu sax ne lii fi'lan ci moom lañ ko jëlee sallallahu alayhi wa sallam kon ashara muy diine bi nit ki di jaamoo boromam yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ñu koy tëralal kon ci moom lañ ko war a séentoo ci moom lañ ko war a jëlee waaye nag mu nekk tamit lu tegu ci tuxal bu wér bañ a nekk rek ci dégg naa nee nañu diw nettali na ak yu mel noonu loolu beneen qaayida la beneen bi si des mooy li yonent bi alayhi salatu wasalaam daan faral di wax beneen qaayida bi ci topp mooy beneen règle bi ci topp sallallahu waaleykum salaam wa rahmatullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan faral di def buy xutba buy wax loo xamante ni lu am solo la mu jiital benn xutba benn wax joo xam ne wax ju rafet la jum daan wax nit mës na ñëw màkka ñu ne ko bul ko déglu ku fi ñëw déglu ko rek mu jaxase sa xel daf la wax ci moom wax yu bëri ba waa nee na dañ maa wax a wax ba bi may jóg damaa jël ay wëtteen taf ko samay nopp muy tufayl ak dawsi nee na bi mu demee lu yàgg xelam yedd ko ne ko yow nit njaay nga dara jàpp la defuloo nekk ku ànd ak sa nit ñi naw la am fu ñu la teg ndax sa xel mu rafet lan nga war a ragal ci déglu waa joo xam ne daa am wax ju muy wax bu fekkente ni li muy wax dëgg la nga jël ko parce que da ngaa ñite ànd ak sa xel da nga war a bëgg lu baax bu dee li muy wax du dëgg nga bàyyi kook moom mu ne kon war naa mën a assumer samay responsabilité mu dindi li mu defoon ci noppam nee na mu ñëw fekk yonte bi alayhi salaatu wasalaam toog mu nuyu ko <clears throat> waaleykum salaam laaj ko ne ko li muy wax nii lan la yonente bi alayhi salaatu wasalaam laata muy tàmbale mu commencé wax def xutba li ñu tuddee xutbatul xaaja muy lu mu daan faral di jiital laata muy laata muy wax soxlaam muy wax ci rafet joo xam daf ko daan jàngal saxaaba yi ci lépp mbir ba benn borom xam-xam bind ci benn téere muy alimam imaamul muhaddisin ak Cheikh Nasir bind ci benn téere dajale ko ci riwayat Jabir yonent bi alayhi salatu wasalaam bokk na ci wax ju rafet jooju mu doon wax teg di ko tàmbalee inna alhamdulillah wala alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ila axiri alkalam bokk na ci lim daan faral di répété di ko wax chaque fois ci waxam ju rafet jooju mooy daf daan wax ne inna ahsana alhadith wala inna xayra alkalami kalaamullahi azza wa jal wa xayra alhadi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax naan wax ji gën a rafet ci wax yi wax ji gën a baax ci wax yi mooy waxu yàlla waaye nag njub bi gën a baax ci njub yi mooy njubu muhammad alayhi salatu wasalaam loolu moom ci yitteel mooy mahallu shahid mooy loolu qaayidal mooy ne xayrul hadi hadi muhammad nit du topp aw yoon wu gën yoonu muhammad alayhi salatu wasalaam amul léegi nag <coughs> loolu bu ko nit ki xamee lan la war a waral ci moom mooy ne kon yoonu muhammad alayhi salatu wasalaam la war a topp ci mépp mbir lu muy def rek dafa war a laaj fan la ci Muhammad alayhi salaatu wasalaam tegoon tànkam mu teg ko fa ndax nit munta ñëw def lu gën a rafet ci ginnaawam léegi bu ñu nee xayrul huda huda Muhammad léegi problème bi mooy tafdil boobu dafay am lu muy lu muy jur mooy gënale boobu ngay gënale njuboom ci beneen njub mooy day mel ne kon moom am na njub keneen am na njub alors que njub benn rek la mooy inna huda huda Allah mooy ne moom njubu yàlla njub benn la te moom la ko yàlla jox ñu war koo jële ci moom léegi loolu dañ ciy tontu ci lu gàtt ne li muy tekki mooy tuddee mbir ànd càkk ka ko ka ko wax nga ànd càkk moom nangul ko tur bi appellation bi mooy lu mel ne yàlla subhanahu wa taala nangu bi mu daan nangul mushrikuun yi ñuy tuddee seen xërëm yi ñuy jaamu ay yàlla dégg nga wax ji bu baax aliha ci boppam yàlla daf koy tuddee seen seen seen yàlla yooyu ñu doon jaamu te pourtant duñu ay yàlla ndax la ilaha illa allah yàlla benn la muy borom bi subhanahu wa taala kon lu tax mu daan nangoo tuddee seen yàlla yooyu ay aliha mooy daf koy tuddee aliha parce que ñoom ñoo ko jàppee ay aliha moo tax mu doon wax naan in hiya illa asmaun sammaytumuha antum wa abaukum ma anzala allahu biha min sultaan ñoom ñoo ko tuddee ay yàlla di ko jaamu mais nekkul ay yàlla ay tur la rek tur yi du tax mu nekk loolu réellement moo tax bu ñu waxee fii tamit ne beneen njub njubu Muhammad alayhi salatu wasalaam moo gën si njub yi ça ne veut pas am njub keneen am njub keneen am njub benn njub la moom moo ko moom la ko yàlla subhanahu wa jox ñu war ko jëlee ci moom kon njub ci moom lañ ko war a jëlee léegi nit ki bu xamee ni njub ak doxalinu Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo gën a rafet doxalinu ku mën a doon kon looy def lu nekk dañ daa war a joxoñ ne la lii mooy doxalinu yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga defee ko noona ndax munoo am leneen beneen doxalin bu gën a rafet doxaliinam la bas nit bu la xam-xam mu wan la teete la ne la yoon wii la yonente bi alayhi salaatu wasalaam jaaroon nii la defee lii defee ko noonu mais li fi danger bi nekk mooy topp ma ma teg la ci yoon wi jiitu nga topp ci ginnaawam bari na ci ku lay wax mais fekk yoonam nga topp au lieu que mu teg la ci hadi yu Muhammad moom ci hadiyam lay teg ak hadi yu baayam ak maamam foofu la danger bi nekk moo tax kon li nit ki war a xam mooy ne xayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu beneen qaayida la ci buntu bi ba léegi beneen bi ci des mooy ne ann alfalaxa wannajata wannajaxa fi dunya wal axira fi l istinaan wal iqtida binnabi sallallahu alayhi wa sallam mooy ne texe mucc ci àdduna ak alaxira mi ngi nekk ci topp yonente bi alayhi salatu wasalaam ak roy ko nit mënul am texe am mucc texe fii ci àdduna mooy tegu ci njub texe ci àllaaxira mooy lan yàlla subhanahu wa taala baaxe la dugal la ci yërmandeem mucc tamit ci àdduna ci réer mucc ci àllaaxira ci mbugal loolu nit mënu koo dajale mënu koo am fii ci àdduna lu dul ne dafa roy mu topp muhammad alayhi salaatu wasalaam beneen bunt bu mu fëgg mënu faa jële loolu topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam rek moo mën a may nit ki al wa najaax wa najaat fi dunia wal axira loolu beneen qaayida la mooy bul sonn bul sori mënuloo dem feneen amee fa loolu muy yërmande yàlla subhanahu wa taala njub ci àdduna wala ci alaxira lu dul nga dem toppe ji yonente bi alayhi salatu wasalaam moom rek la yàlla garanti ne in tutiuhu tahtadu bu ngeen ko toppee di ngeen jub yoon wi xamuñu ko dañuy wër sa xel dafa gàtt ci mën a xam yoon wi lay teg jëmale la ci sa borom at li neex sa borom tabaraka wa taala yàlla subhanahu taala wax yu ko Muhammad mu xam ko mu ne ko demal gaa yi topp sa ginnaaw mu xuus jàll tegu ci yoon wi mu ne topp leen ci ginnaaw bu ngeen bëggee xam yoon wi moo tax moom sallallahu alayhi wa sallam mu misaal siratullahi almustaqim ci xadis bi nekk ci mustadrak xaakim muy xadis abdullah bin masud benn bis mu toog daal di tracé benn yoon wu rëy rëy daal di bind ci yoon wi ay yoon yu ndaw ndawaan bi mu xëj tracé yoon bu gudd bi daf ne hada siratullahi mustaqima li mooy yoonu yàlla bu jub bi yeneen yoon yi ci des yépp ay yoon yu ndaw ndawaan la yoo xam ne benn bu ci nekk am na benn seytaane bu fa nekk di woo nit ñi di leen jëmale ci boppam foofu la danger bi nekk mooy bim ñu xamalee ne yoonu yàlla mi ngi nii moom mi ngi ci taxaw di woo nit ñi naan leen jaar leen ci topp leen ma ma teg leen ci yoonu yàlla am yeneen yoon yu nekk ci wet gi te xam nga yoon yi dañuy gën a jege dañuy gën a jegante siratullahi almustaqim bu gën a jege siratullahi almustaqim rek gën a nuru dëgg bu ko gën a sori gën a nuru caaxaan léegi problème bi mooy yooyu ci jege nekk ci booru yoon bi tam nga jaawale ko ak yoon bi yooyu nag moytul tegu ci yaakaar ni yaa ngi ci yoon wi moo tax kon jéemal xool fa mu tegoon tànkam nga teg fa sa tànk loolu tamit beneen qaayida la ci bunt boobu beneen bi si des benn qaayida boo xam ne al imam euh, al al Shaatibi rahimahullahu rahmatan wasia fi l muwaafaqaat dafa am benn qaayida bu am solo bu muy bu muy leeral ci bunt bi كل كل عمل توفر مقتضيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل يا شيخ وانتفى مانعه يعني ولم يكن من مانع يمنع منه ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به mu ne jëf boobu ci boppam nit ki bu ko defee ci ginnaawam kaana ziyaadatan ala sharia mooy dafay wax ne bépp jëf boo xam ne ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam li waroon tax mu mën koo def am na alimamu Shatibi dafay wax benn qaayida boo am solo boo xam ne Cheikh Lislam Taymi rahimahullah da koy faral di leeral lu bëri ci ay téeram mu nekk loo xam bu ko comprendre dina mën a xam lan mooy taxawaayam ci jëf bu yonente bi alayhi salatu wasalaam deful woon mooy dafay wax ne bépp jëf boo xam ni lu waroon mën a tax yonant bi alayhi salaatu salaam def ko ci jamonoom am na te dara itam terew ko mu war koo mën a def mooy lu war a tax mu def ko am na te tamit amul lu ko empêché pour mu mën koo def mu ne jëf boobu bis bu fi yonant bi bàyyeekoo ko defu ko li waroon tax mu mën koo def mi ngi fi defu ko dara terewul mu def ko ko taxul tamit mu def ko bu fekkee waaleykum salaam wa bu fekkee jëf boo xam ni dafa amul lu ko waral moo tax yonent bi defu ko mooy lu mel ne jamul mushaf wala nga ni maani moo taxoon parce que boobu mën nga ko dugal ci maani wala nga ni nañ nañ bàyyi jamul mushaf ba ci beneen misaal bi ñu wax koon ci al adanu thani bi nga xamante ni bi Ousmane ibn Affan moo ko yokk muy ñaareelu nodd bi Ousmane yokkoon ci euh, noddu noddu aljuma Ousmane jamonoom dëkk bi dafa gën a yaatu buñ taxawee ci jàkka ji noddu kii noddu nit ñi nekk ci marché ba duñ ko dégg Ousmane gis ne war na gis solution ci loolu parce que jumaa day jot ñu nodd ci jàkka ji kenn du ko dégg nit ñi du julli si loolu du gàttañ lu jullit ñi du seen du seen njuumte du seen tooñ mais lu am la mooy ne réalité bu am la léegi Ousmane gis lan Ousmane gis ne léegi na teg benn mu muazzin ci booru jàkka ja bu heure julli jotee bu ji waxtu jumaa duggee mu nodd nit ñi dégg ko xam ne jumaa jot na bàyyi seen njaay meeg njënd mi waajal julli jumaa ñëw ci jàkka ji borom xam-xam yi ci jamono jooju yëpp ak saxaaba yi fa nekkoon ànd ak moom ci loolu mu nekk lu wér lu mën a nekk bu fekkee dégg nga sharia parce problème bi mooy bul xool ne Ousmane def na ko te yonent bi defe ko woon rek mais dafa am benn sew bu ci nekk mooy ne ci jamono bi dara warul woon lu tax mu mën a def loolu ginnaaw bi lu ko waral mën lu ko war a mën a waral ñëw te loolu ko war a mën a waral nekkul gàttañ lu jullit ñi bu fekkoon gàttañ lu jullit ñi moo tax xew boobu am dañ naan Ousmane bul yokk na jullit ñi góor góorlu fexe di ñëw di julli si si jàkka ji mais bul fi nekk di defaat ay ñaari nodd loolu mooy li yenn ci xulafaa u bani umayya bëggoon a def ci ay jamono dañ daan def bu ñuy xutba nekk di wax nit ñi seen nguur topp leen ma man maay seen amir nangam ak sàngam yooyu rek duñu leen wax lu leen jariñ mujj gi buy xutba jàkka ji vide ñëpp dem seen yoon léegi mu xam loolu bisu it yonente bi alayhi salatu daf daan julli ba pare soo a xutba moom mu bëgg def contraire bi mooy day xutba ba pare soo ko julli pour mun a téye nit ñu déglu ko bi mu jógee ba xutba benn saxaabi téye ko ne ko xamuñu woon lii ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne ko su ma fi nekkee di julli soo ko xutba duñ ma loolu dañ naan ko bul changer sharia bul yokk lu bees parce que yow yaa am gàttañ lu sa gàttañ lu boobu dindi ko dégg nga wax ji bu baax mooy ne kon léegi am na muqtadi bu tax muy am na lu war a mën a tax xëy na ñu changer mbir mi ni mu nekkoon mais loolu ko sabab moom gàttañ loom la dégg nga wax ji bu baax mooy si jamono yonent bi alayhi salatu salaam loolu amul woon nit ñi dañ daan toog déglu xutbaam mais li tax léegi nit la bu doon dañ leen di jàjji wax leen ñuy toog di ñëw di teewee ak di déglu xutba bi kon loolu mooy muqtadi boo xam ne mooy loo xam ne daa war a daa waral ab jëf ci ginnaaw yonente bi alayhi salatu wasalaam ni ko Ousmane defee woon wala am lu waral jëf bi ci jamono yonente bi mais nag am lu ko ko empêché ba tax mënu koo def am lu tax yonente bi alayhi salatu wasalaam mënu koo def mooy lu mel ne masalan dajale al mushaf mooy dajale kaamil alquran ci boppam bind ko ci benn téere yonente bi alayhi salatu wasalam ci jamonoom def ko abu Aboubacar def ko ñent di ci tegtaloo ne kon nit bu ko neexee mën naa sos ci diine ndax Aboubacar mi ngi nii dajale mushaf bi mooy dajale alquran bi ci benn kaamil te yonente bi def ko moom moo ko def kon ko mu neex mën ngaa yokk loo xam ne yonente bi def ko ci diine mu nekk déggin bu doy waar ndax saxaaba yi ci boppam jëf boobu Aboubacar def ñoom déggeewuñ ci woon loolu déggee ji wuñ ci woon ne buntu lay tijji boo xam ne mooy lu waay xalaatati rafet la ko ci diine na ko def mais xamoon nañ bu baax ci ban contexte la ko Abubakar radiallahu anhu defee mooy ne ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalaam ci moom la alquran doon wàcc moom mooy représenté alquran fekk jógewu fi mooy kon alquran bi matagul mënaguñ koo boole dégg nga wax ji bu baax kon foog moom mu jóge ñu xam ne yàlla léegi tëj na buntu bi buntu wax yu jeex na alxuraan ji lii dara dootu ci yokku ñu soog koo mën a dajale ci benn mushaf xam ne lii mooy alxuraan jamono Aboubacar moom ci boppam ci tàmbali bi defa ko dem nañ lu yàgg defa ko mais dem nañ ba tàmbali di xare ak ñi nga xam ne ñoo génnoon ci lislaam ak yu mel noonu ak ñu doon woote ay yonent bëgg a yàq lislaam lu bari ci alqurra mooy ñu jàngoon alxuraan mokkal ko ci jamono yonent bi tàmbali di faat bi mu ngi tàmbali di wàññeeku te wóorul mën nañ dem ba benn bis ku mokkal alxuraan dootu fi nekk Aboubacar daal ne day dajale alxuraan kon dajale bi mu dajale alxuraan du bidaa boo xam ne dañuy wax ne day daal di ubbi buntu sos ci diine lu neex waaye mu jëfati mais dañ naan lu mënoon nekk ci jamono yonent bi la dara nekku ci mais li taxoon yonent bi alayhi salatu wasalam mënu ko woon def mooy ci jamonoom la alxuraan doon wàcc fekk moom jugeew fi bañ xam ne alxuraan ji mat na mu ne su koo jël dajale ko def ko ci benn téere loolu ay exemple am tamit lu bari la kon bépp jëf boo xam yonent bi alayhi salatu ñaari mbir yooyu daje na ci mooy ne lu war a mën a tax mu jëf ko amoon na ci jamonoom te dara tere koo def ak loolu yépp yonente bi alayhi defu ko masalan jëf bi li tax war koo mën a def mooy bëgg lu baax bëgg yiw bëgg gën a yokk bëgg gën a jege yàlla bëgg gën a feddali sa bëgg ci yonent bi jëf boobu bu dee lu baax la rek loolu rek lay tekki loolu rek la wundu kon yonente bi alayhi salatu war na koo mën a def ci parce que dara tere ko ko mën a def te xam na ko bu baax itam ndax ñàkk xam moom boo ne yonent bi xamu ko woon loolu moom moo sax gën a dangereux leneen li ci topp nga ne yonent bi xamuloon jëf bi moom loolu moom beneen bir la kon yonent bi xamoon na jëf bi bu fekkente ni loolu lay tekki te dara tere ko ko woon def kon lu tax defu ko foofu question boobu foofu la coow li nekk mooy lan moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam loolu yëpp daje si jëf bi te defu ko ndax ay saxaabaam bëggoon nañ ko mbëggeel boo xamante ni moo gën a tar ñun mbëggeel bi ñu ko bëgg loolu dina ñëw ci kanam incha allah léegi ñàkk jëf boobu mu ko ñàkk jëf alimaamu Shaatibi nee na yow boo ñëwee ci ginnaaw bi nga jëf-jëf boobu mooy yokk nga ci sharia loo xamante ni bokku ci mooy jiitu nga yàlla akub yonentam te yàlla dafa waxoon ne yaa ayuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulih bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent bi alayhi salatu wasalaam da ngeen war a topp ci ginnaaw da ngeen war a topp ci ginnaaw waru leen jiitu kon bu bàyyee bàyyi yam ci boppam sunna la mooy yonent bi bu defee dara benn jëf mu def ko al asl mooy dañ ko cee war a topp mu nekk sunna mu nekk ab roy mooy yonent bi dañ koy roy ci li muy def waaye tamit bu bàyyee dara loo xam ne lu mu waroon mën a def la bàyyi ko ab roy lay tekki roy mooy ne dafa am sunna fi'liya ak sunna tarkiya mooy bu yonent bi defee dara nga def ko ndaxte moo ko def mooy roy nga ko waaye bu bàyyee dara tamit lu mu waroon mën a def defu ko yow boo ñëwee boo ko bàyyee mooy boo ko bàyyee li muy tekki mooy roy nga ko mais mu bàyyi ko waroon ko mën a def defu ko yow nga ñëw def ko ba pare di wax ne da ngay roy yonent bi loolu c'est contradictoire kon foofu am na benn sew-sew bu fa nekk boo xam ni euh, nit ki war na ci bàyyi xel bu baax ci baabu al ibtidaa fi diin tayib beneen bi si des mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam lim daan faral di wax ci xutbaam ba léegi mooy xutba boobu ñu doon wax mooy daf daan faral di def bu taxawee di wax mu ne kullu bidaatin dalala wa kullu dalalatin fi nnaar lépp loo xam ne dañ ko yokk ci dine ji rek aw sos la te bépp sos ci réer lay jëmale nit ki te réer safara lay yóbbu nit léegi loolu yonte bi alayhi salatu faral di wax di ko répété ci kanamu saxaaba lu bari di jëfandikoo laf lu kul jëf bu ñu mën a jëf boo xam dañ koy yokk ci diine mu nekk njub kon yonente bi dina ko leeral ndax borom xam dañuy wax ne la yajuzu taxiru l bayan an waqti l xaaja mooy lu ñu war a leeral ci benn bërëb ci diine yonent bi alayhi salatu waru koo yeexee da ko war a leeralal nit ñi ndax dañ ko war a xam kon buy taxaw ci ay jamono yu bari comme ko Cheikh al-Islam Taymiyya di waxee di faral di répété naan kullu bidaa dalaala kullu bidaa dalaala bépp yokku réer la bépp yokku réer la te musu koo utal benn tënk mooy wane ne kon loolu règle générale la boo xam ne tënkuwul mooy ne lépp mbir lu ñu yokk ci diine yàlla ji réer la loolu règle générale la ñenn gis ne règle boobu am na lu ko mën a tënk parce que am na lu ñu mën a yokk ci diine mu rafet loolu mooy ñaar ñaareelu règle bi mooy yonent bi def ne képp ku jëfee ci lislaam jëfin bu rafet ay nit topp la ca jëfin boobu ak doxalin boobu yàlla dina la fay sa yool fay la yool tamit ñi nga xamante ni ñoo ca topp te du wàññi seeni yool dara naka noonu safaan ba tamit ku jëf jëfin ak doxalin bu ñaaw ci lislaam yàlla subhanahu taala dina la fay sa bàkkaar ak képp ku la ca topp te du wàññi seeni bàkkaar dara ñu ne kon loolu lu muy tekki mooy dafa sos jëf bu bees ci lislaam bu amul woon mu rafet ay topp ko ci yàlla fay ko yoolam fay fay ko tamit yoolu ñu ñëw ci ginnaaw bi ñu ne leen loolu nekkul lu wér déggin boobu ndax bu wéroon kon heure bi l'islam daanaka mën nañ wax ne liñ ci jële woon ci yonente bi lu ñuy fàttaliku la waaye dootul exister ndax kon jamono jooja la saxaaba yi di tàmbali ku ne di sos ndax bu dee yiw rek ñoo ñooñu ko gën a bëgg lépp yoon woo xam ne yoon wu baax la rek nga xam ne da jëf nit topp la ci nga am sa yool am yoolam keneen ku ñëw ginnaaw bi bu jëfee ñu fayaat la mais buntu xéewal bu toll noonu ak buntu tuyaaba bu toll noonu kon saxaaba yi ñoo ciy jiitu kum mën a doon kon heure bi di nga fekk ci lislaam ay jëf yu dul jeex yoo xam dañ naan la Abu Bakar moo ko sos ak yu dul jeex yoo xam dañ naan Omar moo ko sos Ali moo sos lii Ousmane moo sos lii lu tax parce que yonent bi moo leen waxoon ne leen ku ci jëf-jëf bu baax nga fent ko ay nit buñ la ci royee da ngay am da ngay am da ngay am kon bu déggin boobu wéroon ñoom ñoo koy njëkk appliqué te ñoo ñu ko war a gën a mën a appliqué kon le fait que ñoom ñu ñàkk ci déggee loolu ñàkk koo jëfandikoo noonu moo lay wan ne ne déggin boobu wérul ci ñi fi ñëwaat ci ginnaaw bi le fait ñu déggee ci wax jooju ne li muy tekki mooy mën a sos ci diine yàlla ji dara di ko rafet na ñaareel bi mooy <clears throat> delluwaat ci sababu wurudil xadis mooy li taxoon yonente bi alayhi salatu wasalaam wax loolu mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam ci ban contexte la waxee woon loolu léegi xadis day baax nga delluwaat ci boo déggee yonente bi alayhi salatu wax dara nga bëgg xam la hawla wala xam dëgg dëgg dëgg lii mu wax nii lan lay tekki ak lan lay ëmb ak lan lay bàyyi dellul xoolaat ci ban anam la ko waxee ci ban contexte la ko waxee ndax loolu li koy firndeel bari na yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa wax ne <clears throat> salaatul qaa'id ala nisf min salaatil qaa'im ayman fa in lam tastati fa qaa'id fa qaa'idan fa in lam tastati fa fa naa'iman fa ala al janb yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax ne booy julli na nga julli taxaw boo demee ba am gaañ waruloo toog te mën a taxaw waruloo tamit tëdd te mën a toog parce que taxaw ci boppam te mën a taxaw dafa bokk ci arkaanu julli dafa bokk ci ponki julli mais ñu gis ko ci beneen xadis mu ne ku toog sa julli wér na waaye nag li ngay am ci yool day tolloog xaaju li ki taxaw di am léegi xadis boobu boo ñëwee gisee ko noonu te xamuloo ci yonente bi alayhi salatu ba mu koy wax ci lan moo ko taxoon di wax dangay ngay da juum ci ni nga koy tekkee dangay ngay jaxase parce que nga naan boobu kon kuy julleeti bu la neexee nga toog bu la neexee nga taxaw waaye nag ku toog na nga xam ne li nga am ci yool moo gën a néew loolu ngay wax nga wax joo xam ne wérul ci lislaam te li ko waral mooy da ñëw rek jël lafdu xadis bi muy kaddu yonente bi alayhi salatu wasalam li mu wax nii rek te xamoo ci ban contexte la ko waxee moo tax kon di xóotal ci dégg xadis yonente bi alayhi salatu am solo mais nag malheureusement bu fekkee daa am loo def ci diine bëgg ko utal lay loo gis rek xëcc doo sax jéem a lijjanti loo gis luy nuroog tegtal rek nga daal di gaawantu jël teg moo tax i'tiqad summa al istidlal dangereux mooy gëm dara di ko def ba pare di ko wërali jël ay tegtal nit da nga war a ut ay tegtal ci lislaam ba am ay tegtal yu leer soo ko jëf mais boo dee jëf dara wala nga gëm dara sa li ngay gëm ba noppi wër ci ci téere xadis yeeg alxuraan fu ne ngay wër naan xaaral mu utal ko lay loolu mooy tax ngay dégg yenn wax yi nga xam ne boo ko déggee ay retaan da lay jàpp yonent bi alayhi dafa dugg ci dëkk bi Madina fekk jamono yooyu dëkk bi dafa am genre épidémie bu fi am siburu moo jàpp nit ñi ba da ëpp ci dëkk bi dañoo siburu seen yaram neexul jamono yooyu yon bi alayhi salaatu ci jàkka ji fekk gaa yépp toog di julli ndax seen yaram neexul dañoo feebar dañoo sibur mu gis leen xam ne ñii dañuy naafi la jamono boobu ndax julli jotagul bu julli jotoon moom mooy jiite ñu julli mu xam ne ñii seen yaram neexul waaye ku leen soññi woon ñu taxaw te julli taxaw moo gën julli toog mu ne leen salaatu alqaa'id ala nisfi min salaati alqaa'im fa tajashama annaasu qiyaaman bi mu waxee loolu rek nit ñi daal di commencé di jóg gaa yi doon toog ak ñi doon dëngalu yëpp commencé di julli gis nga wax ji bu baax borom xam-xam yi kon xadis boobu ci salaatu naafila lay dellu mais doo jël rek umumul lafz nga ne kon bépp julli bu mu mën a doon nit ki bu ko neexee mu toog bu ko neexee mu taxaw moo tax qaidatu al ibra bi umumil lafz la bi xusuuri la bi xusuusi sabab borom xam-xam yi dañuy wax ne qaida la boo xam ne dafay laaj nit ki xam fuñ koy jëfe ak fuñ ko dul jëfe mooy li ñuy wax naan wax daal boo ko déggee xoolal lu mu mën a ëmb rek mais bul xool la ko taxoon a jóg loolu lu wér la bu yàlla waxee wala yonent bi wax même ay yéefar a ko taxoon a jóg aw xeet a ko taxoon a jóg wax ji mais wax ji yow bu la làmbaalee làmbaale na la dugg nga ci atte bi du caagante na nga ko yemale ci ñoom rek mais léeg-léeg day am ci wàllu jëf yi nit ñi di jëf lu ci yàlla di atte wala yonent bi di atte na nga ko yemale ci jëf joojo danga wax ji bu baax day dangereux nga jël ko yaatal ko dugal ci bépp jëf loolu mooy li leen dal ci xadis bi yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa toog benn bis jékki-jékki aw xeet dikk daanaka ñu dara soluñu dara daanaka ñu dara la saxaabi bi wax ndax seen yaram yépp mu ngi ci biti ay mbir lañ jël rek muuree ko seeni awra ndax amuñ sax ñu sol def tànku neen dikk ci anam bu bu bu doy waar yonente bi alayhi salatu wasalaam ak yërmande bi mu amoon ci nit ñi bi mu ko gisee xolam dafa jeex kanam gi soppeeku mu jug ne Bilal noddal daal di dugg ci jàkka ji Bilal nodd mu daal di kàbbar julli jullit ñi julli ci ginnaawam bi mu paree mu xutba wëlbati ko wax ak jullit ñi ñaaxaat leen ci ragal yàlla fàttaliwaat leen ba seen i xol tooy mu digal leen ne leen saraxe leen lu waay am na saraxe ku am dugub saraxel ku am yére saraxel ku am lekk ku am xaalis saraxe leen gaa yi tàmbali di joxe ay benn benn ñi di indi ay dërëm ñi di indi ay tibbu dugub ñi di indi ay tibbu ceeb benn waay jóg dem këram buub fa ci dund ak ci ay yére ak ci sarax lu baree bari loo xam ni saxaabi bi nettali xadis bi nee na bi mu koy indi xaw koo mën a xëcc mën nañu wax sax ne mënu koo xëcc attanu ko ay loxoom attanu ko muy dar ngoog moom di dar ngoog moom bàgg ci kanamu yonent bi teg ko ah loolu jëf bu baax la wala di jëf bu baax yonente bi alayhi salatu wasalaam li njëkk mooy moo leen digal ne leen jëf leen jëf boobu mooy saraxe leen kon est-ce sarax lu ñu sos la sarax du lu ñu sos lu amoon la ci l'islam ñaareel bi aussi mooy moo leen ko sant kon waa ji sosul bañ naan xadis bi li muy tekki mooy sos waa ji sosul mais dafa fekk lu baax luñ digle mu am jëfin wu ci def am doxalin bu ci def boo xam ni dafa jàngal keneen ku dafa jàngal moroomam bi ñi fa toogoon gisee loolu loolu encouragé leen moo tax léeg-léeg jëf-jëf bu baax ci kanamu ay nit mën na bañ a nekk ngistal bu nit ki góorgóorloo bari xolam mu jàngal tamit ña fa nekkoon fàttali leen tuuti moo tax leen léeg borom xam di wax ne masalan <coughs> mën nga toog ci jataay borom xam-xam toog fa nga laaj benn laaj fekk jubluloo ci sa bopp li nga si jublu mooy jàngal ñi fa toog comme ni jibril defoon alayhi salaam ñëw ci yonent bi di ko laaj wàllu diine yonent bi di wax moom jibril jublu ci jàng mais daf si jublu woon jàngal saxaaba yi kon loolu lu mën a nekk la waa ji tamit sarax bi mu def nii dafa jàngal ñi fa toogoon gars yi bi ñu gisee loolu ñu jóg sawar dem seen kër ñoom tamit buub lu bëri ci sarax indi ko mujj gi saxaabi bi nee na lañ fa teg ci sarax ci kanamu yonente bi alayhi salatu wasalam dafa rëy rëy ba mel ni aw tund yonente bi alayhi salatu kontaan ba kanam gi leer nañ mel ne daggitu zahab muy or boo xamante ni bi dafay lerex lerexi sallallahu alayhi wa sallam bi mu kontaanee noonu ba kanam gi bëgg ci la waxee ne man sanna fi lislami sunnatan xasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyama duna an yunqasa min ujurihim shay képp koo xam ne jëf nga jëf bu rafet ci lislaam doxal nga doxalin wu rafet ci lislaam am nga saw yool yàlla fay na la sa yool waaye doyul waaye nag képp ku ci loola rafetal googa yàlla dina ko bindal yoolam bindal la yool bu toll noonu jox la ko ba keroog yowmal qiyaama jeexe ndox amu fi <coughs> te loolu du wàññi du wàññi seen yool dara léegi xadis boobu naka la mën a teg tegtalee ne mooy kon képp ku rafetlu dara ci l'islam rek na def loolu est-ce que du tijji du tijji bu dangereux ba pare jëmmi rafet sunna xasana xasana boobu rafet boobu ndax mooy lu xel rafet rafetlu wala ndax mooy lu diine rafetlu maanaam fan la nit ki di sukkandiku buy rafetlu ab jëf bi muy yokk ci lislaam ba mën a wax na jëf bi rafet na wala rafetul ndax li muy sukkandiku mooy xelam te loolu yàlla sant ko ko yàlla jaamuloo nit ñi seeni xel li mu jaamuloo nit ñi moom moo ko wàcce ci ñoom neel jaamoo leen ma lii ndax bu seeni xel yoon du jar muy yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mënoo jëfandikoo sa xel rek ne jëf bi rafet na naa ko def mais foog nga xam ba xam rafet na ca yàlla wala rafetul ca yàlla léegi boo nee diine moo ko rafet rafetlu ñu ne la diine moom lu mu rafetlu du lu ñu sos ndax boo nee diine moo ko rafetlu mooy ne kon am na tegtal ci alquran am na tegtal ci sunna waxuñu tegtal nag comme li ñu waxoon sànq loo seen muy lu ñuul rek nga xëcc teg ne lii moo koy tegtal ne wane ne jëf bu rafet la yàlla ne yaa ayuha alladina amanu dhkurullah dhikran kathira dee leen tudd yàlla dee leen fàttaliku yàlla lu bëri ah nga ne loolu tegtal la ci ne kon lu waay mën rek na def ci ay façon ay sos ak ay mbir yoo xam ne lu ne ñu ko ciy wax mais yonent bi lan mooy rôle am yàlla subhanahu wa taala daf ko yebal pour mu jàngal ñu ñi alquran xamal leen bëgg-bëggu yàlla ci waxam ji bu fekkoon da ngay ñëw jël aaya yi nii rek mu général lu mu la wax ne la defal nangam rek nga ne xalaas kon lu ma ci bëgg a def naa ko def kon moom kon moom lu ko lan lan la lan la fii lan la fii def ban njëriñ la fi am njëriñam mooy li ko li yàlla wàcce mu def ko ñu topp ci ginnaawam bu yàlla santaanee dara xamuñu bëgg-bëggu yàlla ci mbir mi ñu laaj ko mu wax ñu saxaaba yi bi yàlla wàccee ne yàlla ak ay malaakam dañuy julli ci yonante bi yéen jullit ñi julli leen ci yonante bi alayhi salatu wasalaam nuyu leen ko ñaanal leen ko mucc ñaanal leen ko jàmm salaam boobu ñoom xamoon nañ ko dañ daan julli ci yonante bi alayhi dañ daan nuyu yonante bi naan asalaamu alayka ayuha nabi daan nañ ko wax ci seen i seen i seen i julli comme taxiya asalaamu aleyka ayuha nabi kon xam nañ asalaam ala nabi mais problème mooy asalaatu ala nabi julli ci yonente bi alayhi salatu salaam lañ xamul ndax saxaaba yi dañoo toog rek ak seen i xel yu rafet ak li ñu xam ci lislaam ku nekk ne asalaatu ala nabi nangam kii ne kii fent ay waxam ne lii laay jullee man ci yonente bi ku nekk fent seen mbir ne loolu laay jullee déedéet dañoo dem ci moom sallallahu alayhi wa sallam fadale cheikh dañoo dañoo dem si moom sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne ci moom la yàlla subhanahu wa taala wàcce sallu alayhi ñu laaj ko ne ko kayfa nusalli alayk naka la ñuy jullee si yow yonente bi alayhi salatu wasalam leen qulu allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ba mu jeex mu jàngal leen naka la ñuy jullee ci moom sallallahu alayhi wa sallam kon moom loolu moo doon njëriñam mooy yàlla subhanahu wa taala day wàcce ci moom dara mu jàngal ko jullit ñi bi yàlla wàccee ci moom julli dafa jóg mu julli ci place boo xam ne place bu xat la waaye nag kawee na bu fa taxawee di julli nit ñi dañ ko gis muy kaw minbar bi buy sujjóot sax day wàcc suuf mën a sujjóot bi mu paree mu ne li ma def nii dama koo def ngir ngeen xam naka laay jullee mën a roy ci man kon loolu mooy njariñam mooy yi wax yi yàlla di wax ci alquran mu nekk ay mbir yu yaatu yoo xam ne léeg-léeg nit ki du mën a xam dëgg dëgg dëgg lan mooy jubluwaay ba mu delluwaat ci yonent bi pour xam jubluwaayu yàlla ci wax yi mais li li garaw mooy ki bëgg a sos moom day fekk ay occasion rek loo xam ne yàlla yaatal na ko digle ko <coughs> du ci doyloo yonent bi alayhi salatu salaam jàngaleem la mu defat la mu deful waaye day daal ubbi rek bunt bi tàmbali lu ne mu dugal ko ci loolu moo dangereux jazakallah xayr <coughs> kon xadis boobu ala kulli xaalin min al axwaal du tegtale sos ci diine ñaareel bi mooy bu fekkee yonte bi alayhi salatu wasallam wax ji wax bàyyi nañ ci xel daf ne man sanna fi l islam cheikh lislam taymia mu ne fi mooy amalan daaxilan fi l islam yaani kaana mawjudan fi l islam min al def ci l'islam mooy kon jëf bi ci l'islam la bokk parce que bu bokkuloon ci l'islam du ne ci l'islam parce que bi mu ne ci l'islam rek fii boobu di tekki zarf mooy ne kon jëf bi ci l'islam la bokk nga def ko <coughs> nga def ko ci benn anim anam bi rafetal ko ay nit topp la ci ay nit royee ko ci yow yàlla fay la sa yool fay la ci yoolu ñooña kon fii boobu noonu day tegtale ne jëf boobu kon kaana mawjudan wa huwa min dimni lislam faddal <coughs> <coughs> dafa am ñu ci indi benn problème bu sew mooy léegi dañ ne bu fekkee dañ ne jëf bi kon ci lislaam la bokkoon nekk lu rafet kon ñaareelu xaaju xadis bi day nekk problème lenn ci ñenn ñoo ko wax ngir bëgg a ne tuuti xëy na dégg-dégg bu wér ci xadis boobu ñu ne kon loolu day tegtale ne kon am na jëf bu ñaaw ci lislaam parce que daf ne waman sanna fi l islam sunnatan sayyi'a te lislaam amul sunna sayyi'a sunna xasana rek la am léegi ñu ne kon buñ teg buñ waxee ne jëf bu njëkk bi waajooju jëf te mu rafet dafa nekkoon ci lislaam du lu bees lu mu indi kon ñaareelu xadis ñaareelu xaaj bi ci xadis bi li muy tekki li muy tekki kon mooy nit koo xam ne dafa ñëw jëf-jëf bu bon ci lislaam boo xam ne dafa amoon ci lislaam bon mu jëf ko ñoo leen déedéet <clears throat> du ko tegtale dox du ko tegtale mooy fil islam l'islam liñ ci namm foofu mooy jëf bi ak mbonam ci lislaam la bone li tax mu ne fi fil sunnatan sayyi'a fil islam mooy bonub jëf bi ñu ngi ko xamee ci lislaam beneen diine wala feneen jëf bi mën na faa ñàkk bon mais boo ñëwee ci l'islam jëf bu bon la parce que lislaam ñaari jëf yëpp mi ngi fii mooy bu baax ak bu bon bu baax bi dañ la koy digal bu bon bi dañ la koy tere sax wala la jëf yu bon yi nit ki di moytandiku daf koy moytandiku ngir lan ngir nekk gi mu nekk ci l'islam l'islam tere ko ko kon yàlla subhanahu wa taala topp gi nga koy topp dafa nekk bil awamir wan nawahi mooy loo xamante ni salbi la ak loo xam ni ijaabi la mooy loo xamante ni lu positif la lu négatif li ngay amal ak li ngay bàyyi moo tax ñaar yëpp ñu la ciy fay yool boo bàyyee lu bon ngir yàlla ñu fay la yool boo jëfee lu baax ngir yàlla ñu fay la yool kon ñaari jëf yëpp ci lislaam la sax wala la benn génn ci lislaam bu nit ki ñëwee fekk lu ñu war a bàyyi ci lislaam mu def ko ba ay nit topp ko ci kon def na ci lislaam lu bon ndax jëf bi ci lislaam nañ ko santoon ne ko jëf bi bul ko def ci lislaam naka doon jëf bu ñu war a def ci lislaam mu def ko ay nit topp ko ci am na ci yool sax wala la ndax bu fekkoon jëf bu ñu war a bàyyi ci lislaam bu bon ñu war ko bàyyi mu bàyyi ko defu ko nit gis ko ci bàyyeem boobu mu bàyyi jëf boobu mu topp ko ci day am yool wala du am yool sax wala la léegi loolu kon mënut a tegtale benn yoon ne sunna sayyi'a dafa am ci l'islam moo tax kon seen tegtale wuñ yooyu ñuy tegtal pour tuuti freiner du nekk lu dëgër du nekk lu wér beneen bi ci des mooy ne le fait nit mën a jëf benn jëf ci kanamu yonent bi alayhi salatu wasalaam bi dëggal ko ci loolu muy li ñu tuddee as sunnatu taqririya mooy masalan jullit ñi dañ daan def boo buñ jullee ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam buñ ñëwee fekk mu jiitu mu jiitu leen yow boo ñëwee au lieu nga ñëw rek topp ko dangay ñëw julli li nga xam ne moom moom la julli ba pare lim la rawee da nga koy julli ba dab ko fi mu àgg nga ànd ak moom benn mu Muaaz ñëw fekk yonent bi alayhi salatu wasallam di julli raw ko mu ànd ak moom bi mu demee ba sëlmal mu jug àggali affaire boobu lu ñu toxal la jële ko ci Muaaz bi yonent bi alayhi salatu wasallam pare ne qad sanna lakum Muaaz sunnatan xasana fastannu biha Muaz yoonalal na leen yoon wu rafet topp leen ko ci léegi jëf boobu yaa yonent bi alayhi salatu wasallam nit di jëf ci kanamam mu dëggal ko ndax day wane ne kon nit mën na ci lislaam jëf loo xam ne yàlla sant ko ko yonent bi sant ko mais lu rafet la rek mu def ko dégg nga wax ji bu baax ndax buntu boobu lay tijji parce que ñoom dañuy teg tegtaloo ci xadis yooyu te dafa am rapport ak li ñu doon wax léegi moo tax ñu dugalaale ko ci wa illaa sax subuhaat nga xam ne ñoom moom la ñuy tegtaloo ci di dagganal ak di di mën a jëfandikoo jëf yu mel ne yi ñuy waxee nii li ñuy waxtaanee nii dina ñëw si kanam muy seeni subahaat léegi loolu du ko tegtale lu tax mooy ne roy bi ñuy roy <clears throat> ak xam gi ñuy xam ne jëf boobu jëf bu baax la dañ ko xamee ci jëf bi ko nit kooku jëf wala dëggal gi ko yonent bi dëggal dëggal bi ko yonent bi alayhi salatu wasallam dëggal ci lañ ko xamee kon ñun bu ñuy jëf jëf boobu en tant que ci l'islam la bokk dañ koy jëf ne yonente bi alayhi salatu moo ko ap moo ko appuyé moo ñu xamal ak bokkam ci l'islam mais jëfuñu ko parce que diw moo ko jëf bu ko diw moomu kase jëfoon te xamuñu yonente bi alayhi salatu wasalam appuyé na ko ci ne lii luñ mën a jëf la kon duñ ko jëf li tax nag yàlla subhanahu wa te yàlla lu mu namoon a yoonal ci l'islam la dégg nga wax ji Omar ibn al-Khattab masalan daf daan jékki-jékki wax benn wax yàlla subhanahu wa taala wàcce alquran wax jooju wattaxidu min maqaami ibrahima musalla maqaam bi ibrahim taxawoon bi muy tabax kaaba gi mook ismail ngir ñu def ko jullikaay bërëbu jullikaay mooy nit ki bu tawaafee ba pare mu dem julli fa ñaari rakaa loolu omar moo ko wax yàlla wàcce alquran dëggal ko ci loolu am ay borom xam-xam yu taalif ay téere di nettali yoon yi nga xam ne yépp omar yàlla mos na ko dëggal ci wax ju mu wax loolu ndax wax ju yàlla namuloon wax la wala na wax ju yàlla namoon wax la lu naroon bokk ci alquran la wala omar da ko wax rek yàlla boole ko ci mais naru ci woon bokk ah da si naroon bokk ndax yàlla alquran da ko waxoon ba wàcce ko comme ni ko Abdullah ibn Abbas waxee ci benn bërëb bu ñu tuddee baytul izza ci asamaanu àddina ginnaaw bi mu jël ko di ko wàcce ci yonente bi alayhi salatu wasalam a jëman muy tuuti tuuti ndax jiitu na wàccu ko alquran mooy xamoon nag li lépp laata alquran di wàcc yàlla subhanahu taala wax na alquran ji ba tëral ko di ko wàcce ci yonente bi alayhi salatu wasalam asar ñoo ñu na jóge ci Abdullah ibn Abbas kon Omar waxul loolu yàlla wax ko fekk na ma ko woon wax naka noonu tamit ki jëf-jëf yonent bi alayhi salatu wasallam dëggal ko jëf boobu mujj bokk ci lislaam du ne nit ki da def yàlla soog boole ci lislaam mais na mu woon bokk est-ce que dégg nga wax ji bu baax mooy namoon bokk ci lislaam la mais yàlla moo ko boole ci moo ko jaarale foofu léegi jaarale bi ko yàlla jaarale foofu nag am benn xikma bu ci am muy am benn jàngale bu fa nekk muy yaatuk lislaam muy nooyuk lislaam ak yàlla subhanahu wa taala wan gi muy wan jullit ñi ne leen lislaam pour yéen la yéen a ko tax a jëf yéen a koy jëf dégg wax ji bu baax yéen a koy jëf du mbiru malaaka nit day jëf-jëf sax yonent bi alayhi salatu salaam xamal na leen nii la kon jëfe leen nii dégg nga wax ji mais loolu lu muy teg est loolu day tekki ne kon même bu fi yonent bi jógee mën nañ continuer di gë di di góorgóorlu suñ bopp di jëf ay jëf yoo xam ne moom appuyé wuñ ci digaluñu ko nekkatu fi ba ñuy mën a xam ba xam lii lu baax la wala lu bon la te xamal nañu ci ay règle générale ne bu leen yokk lii ma leen jox yam leen ci lépp lu ngeen war a xam jàngal naa leen ko dégg nga wax ji bu baax ndax li tax loolu mooy ay saxaaba daawuñ def mbir yonent bi tere leen ko wala daawuñ jum mu leen di jubbanti kon du lépp luñ def rek mu fekk si leen ci du lépp luñ def mu fekk si leen mais léeg-léeg yàlla nam mu tàggat kenn mu def benn jëf yonent bi alayhi salatu wasallam jàngale ci jullit ñi mu nekk ab xew-xew jullit ñi jàpp ko mu nekk benn méthode ci jàngale boo xamante ni bi bu am bu am solo la bu xereñ la kon loolu am na benn xikma bu ci nekk moo tax yàlla daan ko jaarale foofu mais lu nam moon bokk ci diina la du lu ñu sos kon sunna taqririya boobu noonu dañ koy jëf mooy loolu yàlla yonent bi alayhi salatu wasallam dëggal ci jëfu nit ndaxte yonent bi moom mooko saxal moo ko dëggal moo ñu xamal ne ci lislaam la bokk mais burul woon ak loolu duñ ko duñ ko jëfee beneen xaayida bi si mooy anna xayra hadihi alqurun anna xayra hadihi بعد نبيها صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأنهم خير خير هذه الأمة <clears throat> ولا خير ممن جاء بعدهم في كل علم وفضل ودين beneen bi si des mooy li yontu bi alayhi salatu salaam xam le ne ñi gën ci xeetam ñi gën ci nit ñi ginnaaw moom yontu bi alayhi salatu salaam mooy ñi mu jamonoon teel nee na ñooñu ñoo gën ci nit ñi mooy ñi nga xam ne ñoom la jamonoon teel ginnaaw ñoom ñi gën ci nit ñi mooy ñi topp siècle bi topp ci ñoom ñoo ñooñu génération bi topp ci ñoom nañu wax génération ñetti génération yi waaw mu ne ñetti génération yooyu ñoo gën ci xeet bi ci bépp xam-xam bu nit war a xam ñoo ci raw xam-xamu diine rek l'islam ñoo ci raw ñi ku mën a ñëw seen ginnaaw ñoom ñoo la ci raw ñoom ñoo jamono teg yonent bi ñoom la yonent bi forme ñoom la jàngal amul ku mën a tey ñëw nit formé la wala nga génne beneen école ak lu ñu mën a wax ci yow ci ay titre ba nga gën leen a raw leen ci xam-xam mënul nekk ñooñu ñoo génne ci madrasatu muhammad alayhi salatu wasalaam ñoom la tàggat ñoo raw tamit keneen ku dul ñoom ci ay ngëneel ñoom la yàlla gërëm laata ñuy génn àdduna ñoom la yàlla wax ne laqad radiyallahu anil muminina id yubayi'unaka taxta shajara yàlla gërëm na jullit ñi jamono yi ñuy jaayanteeg yow ci suufu garab ga mooy sulxul xudaybiya yonente bi alayhi salatu wasalam la yadxulu nnaar ahadun mimman baaya'a taxta shajara amul kenn kuy dugg safara koo xam ne jaayonte nga ak man ca suufu garab ga ñooñu la yàlla garanti loolu ñooñ ñooy ñi yàlla wax ne amalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum def leen lu leen soob jéggal naa leen muy ahlu badr da nga wax ji bu baax kon ñoom la yàlla gërëm leeralal leen ak ngërëmam ci ñoom laata ñuy génn àdduna keneen ku dul ñoom amuloo ngërëmu yàlla moo xam sax ginnaaw bi nga fi jógee boobu yàlla garanti wane ko wax ko waxatuma la sax jamono bi ngay dundee ay nit nag mën nañ laa waxal say jaloo rek lu ne mais ñoom rek la yàlla garantie loolu kon seenuk raw ci l'islam lu ñu war di fàttali la ak di ko feddali pour gars yi def ndànk tuuti dégg wax ji bu baax parce que lu tax mooy ñun suñu bëgg ci ñoom ak suñu roy ci ñoom ak ñoom ak seen wekk leen ak teg leen fenn fi moo raw moo war a raw fuuf nuñ koy defee ci ñeneen ñi ñi nga xam ne ñoom la ñuy faral di dégg ñuy wax seen i mbir ndax nit mënatul def ci l'islam jaloore ju raw ñoom lañ def te pourtant da ngay dégg nit ñi di wax di leen sous-estimer da nga wax di wane ne seen i gaa yi leen raw gaa yooyu ku di seen ginnaaw ngay topp mënoo ci dara mu neex la mu naqare ci seen ginnaaw ngay topp maanaam ku baax ci xeet bi ci seen barke nga ñoom ci seen barke maanaam ci seen baaxaay nga firnde firnde nga ci seen baaxaay xam nga Cheikh lislam taymi dafa wax ne nit lu mu am am màgg ci l'islam firnde la ci yonent bi da nga wax ji bu baax maanaa loo baax ci lislaam rek daraja la bu yokk ci yonent bi dégg nga wax ji xam nga a mënatoo koo raw mooy yow foo àgg moom loolu day wane ne moom moom ci boppam moom moo baax saxaaba yi tamit ak ñoo ñu jiitu woon loo defate ci jaloore seen ginnaaw day wane ñoom seenuk raw ak seenuk mbaax parce que ginnaaw yàlla ci ñoom la dégg nga wax parce que ñoom la yonent bi jàngal l'islam jox leen ko ñu teete ci ñi ci des jàngal ko jox leen ko ñun ñëpp ay caddo lañu woon wala boog suñuy maam kon dañ leen war di ñaanal moo tax yàlla subhanahu wa wax ne ñi ñëw ci seen ginnaaw di seen mbokk dañ leen di ñaanal yërmande ak njëggal ndax am na lu bëri lu ñu war lu ñu war warlu suñu digganteek ñoom mais lu doy waar tey mooy dañuy muur bëti jullit ñi ci ñooña di leen sous-estimer ko tuutal di yëkkati ay gars yoo xam ne li yàlla xam doy na dégg nga wax ji bu baax naka noonu itam ñoo raw ci xeet bi ci bépp jaamu yàlla bépp diine jaamu yàlla rek ak tàggat sa bopp ak sori ci jaamu yàlla amul kuy ñëwati ci ginnaaw bi di leen ci raw te du ñooñu ñoo doon ñëw ci yonente bi ñenn ci ñoom Usmaan ibn Mazun naan yonente ndax doo ma digal ma tàpp sam bopp dootuma soxlaati jigéen maanaam xalaat yooyu est-ce que yaa koy xalaat nit ku dem ba àgg ci yooyu ñëw ci kër yonent bi ñenn ci ñoom dañu ñëw ci kër yonent bi laaj li ñuy wax ci ay jaamu yàlla ñu mel ne ku ko xeeb yow loolu boo ko déggee xadis yooyu di nga xam ne ñooñu doon xeeb juum nañu mais seen xër moo leen ci yóbbu moo tax saxaab yi bi ne nettali dafa ne fa ka annahum taqalluha dafa mel lañ koo xeeb kenn ci ñoom ne man day damay taxaw guddi gi rek dootuma nelaw kenn ne man dootuma takk jigéen keneen ki ne man de damay woor rek yonent bi woo leen nee nañ délégation Ousmane Ibn Mas'ud la mooy ci gaa yu tàng yi dégg nga léegi kon jaamu yàlla ci boppam ci diine ji nit mënatu leen cee raw kon ñetti ñetti siècle yooyu raw nañ ñetti siècle yooyu raw nañ <coughs> moo tax yàlla ne min almuminina rijalun sadaqu ma ahadu llah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila ñoo dëggale ñoo dëggal ñoo feddali la nga xamante ni moom lañ coloré wonte woon ak yàlla subhanahu wa taala ñoo ko matal ba mu mat sëkk tayib loolu beneen xaayida la mooy nga xam loolu mu leer ci sa bopp ñooñu seenuk raw nga xam ko xam ne ngëneel moom nit mënatu leen cee raw nit mën na ñëw baax la chaque seen ginnaaw bañ koy sax gënale ci ñenn ci ñoom mais comme comme en tant que génération en tant que siècle nit mënatul ñëw gën leen léegi <clears throat> beneen mbir bi ci des mooy boo xamee xaayida boobu li ciy topp mooy ndax ab jëf bu baax ci lislaam ñu koy jaamoo yàlla mu lay jegeel yàlla nekk jëf boo xam ne dañ ciy wax ci ay ngëneel kenn xamul luñ ciy wax ci waxkat yi faral di wax ci bu ñu ñoom tim bu seen yaram ndax jëf bu mel noonu mën na nekk ci lislaam bokk ci lislaam ñetti siècle yooyu yëpp dëppoo bañ koo jëf bañ koo xam ba seen ginnaaw ay siècle ay nit ñëw ñoom mën a àgg ci baax ak ci xam ak ci jaamu yàlla foo xamante ni dañuy xam jëf boobu ci bokkam ci lislaam ak war koo mën a jëfam ne sax sunna bu bu ñu war a fe bu fe bu sunna mu akkada la ni ñu koy waxee ne nañ sunna mu akkada la ne sunna mu akkada la boo xam ne mooy sunna bu feddaliku boo xam nit ki da ko war a def li gën mooy mu def ko bu ko def bu ko defulee xëy na du am bàkkaar waaye tamit wax dëgg yàlla ngàññi nañ ko ndax doylu na ci diineem wala doyee dina ci diineem ndax jëf bu mel noonu war na mën a ëmp ñooñu seenug dëppoo ijmaa ñu dëppoo ñoom ñëpp bañ a jëf-jëf boobu est ce que warta indi sikki sàkka ci sa ci sa ci sa xol yow bi ndax mënati ngaa xam diine wala nga àgg ci yàlla wala góorgóorlu ci yàlla fooy fooy xamee lu ñu xamul fooy def lu ñu deful moo tax xudayfa wax ne kullu ibadatin lam yataabad biha asxaabu rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam fala taabadu biha bépp jëf bépp jaamu yàlla xudayfa ibn al yaman bokk ci àndandoo yonente bi alayhi salatu salaam yonente bi alayhi salatu salaam yar ko muy wax comme ci asar bi ni ko alimamu laalaka yi génnee ci charxu itiqad usul ahli charxu itiqad usul ahli sunnati waljamaa muy wax naan bépp jaamu yàlla boo xam ne àndandoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam wuñ ko woon yàlla mu ne bu leen ko jaamoo yàlla subhanahu wa taala dégg nga waxu xudayfa moom la ñuy wax saaxibu sirri nabi sallallahu alayhi wa sallam nee nañ moom la yonent bi dee yoon ay mir yu bari yu xew ci xeet bi ginnaaw bi mu koy nettali xudayfa dafa wax ne bépp jaamu yàlla boo xam ne boo seetee ci dictionnaire bi fi saxaaba yi bàyyi doo ko fa fekk mu ne jaamu yàlla boobu bàyyil bul ko def bu doon lu baax la ñu jiitu la ci moo tax ñaan naan law kaana xayran la sabaquuna ilayhi dégg nga jëf booy jëf ci seen ginnaaw bu doon lu baax la ñoom ñu jiitu la ci ndax ñoo la raw ci bépp buntu yiw ñoom kenn ci ñoom daan xëy di fëgg buntu yiw yépp Abu Bakar est du dugg du dugg ci buntu aljana yi li mu doon boole waaleykum salaam wa rahmatullah li ñu doon boole dafa bari dañuy boole yiw yu bari di ko jëfandoo lépp lu ñu xam ne lii buntu yiw la ñu fëgg ko lépp lu ñu xam ne yiw la yonent bi alayhi salatu wasalam def ci lu baax wala mu ñaax ci nit ñi ñu def ko Abubakar li mu doon boole radiallahu anhu da doon boole di defandoo lu bari nekk xalifa di jiite di ju di di julli guddi di jàng alquran di dox ci soxla jullit ñi dafa boole woon lu bari ñun tey sama classe bi kuñ ci ne yaay xutba fii sax ci jàkka ji luñ la santati nga ne non xutba bi moo tax dañ wax ji bu baax abubakar masalan radiallahu anhu ñoom da gis ne dañ doon boole lu bari di ko jëfandoo léegi nit ki ñëw ci ginnaaw bi ginnaaw bi ñu fi jógee ba ñu fàtte ba xew-xew yu bëri xew ci lislaam ba yu bëri sosu fi ba nit ñi gën a di seen diine ay jëf li fi juddu ngay jël di ko jëf ñoom xamuñu ko woon buñ deewoon tey fekk la ci dañuy posé wu naan li ngay def ni mooy lan gars yi toog di xaacu di ci wax yenn wax yi ndax sa bopp la mënatoo leen amul yiw woo leen di jiitooti moo tax Abdullah ibn Masud wala Abdullah ibn Umar lan la wax Abdullah ibn Masud moo ko wax ittabiu wala tabtadiu wa qad kufitum alaykum bil amr al atiq topp leen bu leen fi nekk di sos yi ñu wax ak yi jàll léegi du pour ñu tontu ko du nekk lu lu yomb ndax yonte bi alayhi salatu salaam moom ci boppam feete na woon ak juddoom wala feetewu ko léegi boo xoolee alimaamu saxaawi dafay wax ci alfatawa mu ne amalul mawlidu sharif lam yunqal an ahadin min alsalaf salih fi alquruni thalathati alfadila wa innama xadata baad mooy ne alimam saxaawi dafa wax loo xam ni même ñiy def ixtifaal bil mawlid nabawi nangu nañ ko mais nag comme que coow li bari ñu ngi leen di laaj ay tegtal moo tax léegi am na ñu commencé di wax ne yonent bi daan na feete gàmm daan na feete gàmm am na ñu ko commencé di wax. Euh, euh, loolu am na am na am ñu koy jëm parce que bi ñu sonnee ci ñàkk yonent nee na bidaa la bidaa la dafa dem ba jëmmi bidaa la bi dafa xaw a ñaaw tuuti ñu bëgg léegi utal ko utal ko dalil ci la yonente bi alayhi salatu wasalam daan def al imam saxaawi nee na feete ak jëfe feetal judduk yont bi alayhi salatu wasalam mu ne nekkul lu ñu xam jële ko ci ñi jiitu woon ci lislaam nekkul lu ñu xam jële ko ci ñoom ci ñetti siècle yooyu kenn xamul woon lu tudd gàmm ginnaaw ba tamit kenn xamoo mu ne ginnaaw loolu la sosu ci lislaam te lu wér la ñi ko sos mooy al fatimiyun wala al ubaydiyun yi nekkoon Masr boo delloo ci téere histoire yépp al imam al Maqrizi ci al xutat daf lay wax ne la ñi sos gàmmu mooy ay gaa yu nekkoon Égypte yu amoon foofu benn xilaafa genn nguur ñu leen di tuddee al fatimiyun mooy dañ leen di askanale fatimatu bint bint nabi sallallahu alayhi wa sallam parce que ka jiite woon seen nguur Ubayd la tudd bi mu demee Maghrib mooy bi mu demee foofu ci eh, dëkk yooyu mu moom tuddul sax Saïd la tudd xam nga rek gars yi bu ñu bëggee def seen i jaxas bu ñu dem feneen dañuy changé tur bu mu demee foofu mu changé turam tuddee boppam Ubayd nee nañ baayam dafa am moom baayam dafa am euh, nu mu tuddati ak mbokkoo ak benn waay bu tudd Maymun al Qaddax Qaddax boobu kooku ku dangereux la ci l'islam parce que zindiq la woon boo xam dafa duggoon ci l'islam ngir yàq ko di tuddoo di jax di maanaam di mbubboo ar rafd mooy ñiy woote woo ahlul bayt di wax ne ñoom dañooy fonk ahlu bayt nabi sallallahu alayhi wasallam ñoom lañ faral ñoom lañuy jàppale ci seen coow leen jotale woon ak lenn ci saxaaba yi ak yu mel noonu parce que foofu tamit beneen buntu la boo xam ni gars yi dugg ci lislaam ngir yàq yépp fa la ñuy jaar ndax doy waar gum doy waar moom tamit mooy rafd ci boppam ñu ñu tuddee ak chia bam ñooy jaar foofu yor ak batiniya mooy loo xam ne dañuy bëral ci kaw nii lu bokkul ak li ñuy fas ci suuf fas ay pas-pas yu garaaw yoo xam ne képp ku ko pas de fas da lay génn ci lislaam batiniya googu nga xam ne moom la qaddaax yoroon moom qaddax boobu mbokk la ci baayu ubayda boobu muy saïd boobu ñuy wax noonu dégg nañ wax ji bu baax ubayda boobu moom moo taxawal nguuru googu ci Égypte ñu koy tuddee dawlatul ubaydiyin wala xilaafatul ubaydiyin mais problème mooy bi mu demee ba am kàttan dafa tuddee boppam ubayd ne moom dafa bokk ci kër yonente bi alayhi salatu wasalam ndax gars yi ku ci am nguur bëgg kii sa bopp rek da ngay wax ne man sharif la mu moom dafa bokk ci kër yonte bi alayhi salatu salaam bokk ci seti fatimata bint nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu tuddee leen alfatimiyin mooy ñi nga xam ne ay sëtu fatima lañ te loolu dara nekku ci dëgg borom xam-xam yi bind ci histoire yépp bind ay sëtu fatima mosuñ ci tudd gaa yooyu nekk ay gaa yu doy waar yoo xam ni pas-pas bu garaaw lañ yoroon ci l'islam nekk ay baatin yun yoo xam ni rafd lañ doon wane ci kaw mais dañ doon wane ay chia lañ ci kaw mais liñ yoroon ci suuf moo gën a garaaw ñooñu noonu dawla boobu muy nguur googu noonu ñoom ñoo doon fent ci l'islam ay feet yu bëri yenn feet yi ci chrétiens yi lañ ko doon jëlee yi ci des ñoom ñoo ko doon sosal seen bopp ndax façon feet yooyu ci yi lañ ko royee loolu bu yoboo aussi ñu xam ko muy façon feet yooyu ñuy feete jullit ñi ci chrétiens yi lañ ko royee am ci yoo xam ne chrétiens yi dañ ko doon feet ñoom ñu jël ko di ko feete ci seen ci seen nguur googu am ci yoo xam ne moom moo ko sos mawaalid yi ñu daan feete muy gàmm yi ñu daan feete ñoom ëppoon na benn ndax demoon na ba juróom benn mooy lañ daan feete gàmmu yonent bi gàmmu Xasan gàmmu Xuseynu gàmmu Ali gàmmu Fatima ak gàmmu tamit alxalifatu alxaadir mooy seen xalifa bi nga xamante ne mooy xalifatu seen nguur googu dañ daan feete tamit ak juddoom kon ñoom juróom-benn juddu lañ juddu lañ daan gàmmu man dañ daan màggal juróom-benn euh, nu mu tuddati juddu mu nekk ay feet yoo xam dafa tasaaroo woon ci dëkk yooyu ñu ci jox jullit ñi ay xaalis di leen ci bégal di leen kontaanloo di pasar pasare xaalis pour lépp nit ñi gën a sawar ci feet yooyu noonu kon loolu ñoom ñoo ko fentoon sos ko ak yeneen feet yu bari yu ñu daan feete mais mawaalid yi ñu xam ne juróom benn la woon ñu demee ba jamono am seen benn amir ñëw moom mu dindi feet yooyu yëpp mu éliminer ci quatre bokk na ci mawlid nabi sallallahu alayhi wasallam mu éliminer ko ne lii nañ ko bàyyi du feet biñ ko bàyyee ba kenn feeteetu ko lenn ci ay nit yu yëngatu ci xam-xam parce que ñoom chaque fois ñooy sol seen i dàll ñu dem ci xalifa bi topp ko ci mawlidu nabi mawlidu nabi mawlidu nabi di ko ci wax di ko ci wax ba mu commencé waat di ko feete foofu noonu ci xilaafa googu ci Égypte ci jamono yu mujj yàggul trop ci l'islam fekk siècle yu njëkk yi jàll nañ ci l'islam ci dawla boobu tamit ak na mu meloon ak ni ko ni niñ ko niñ ko niñ ko xamee yépp ak yàqu yi ñu def ci l'islam boo jàngee seen histoire muy dawlatul ubaydiyin képp ku leen xam-xam ne jullit yi dañoo mujj sax jël ngànnaay xeex ak ñoom daaneel seen seen nguur googu loo xam ne daganul ci l'islam mooy bu fekkoon seen nguur nguuru l'islam la benn jullit du jël jaasi jaamaarloog ñoom mais borom xam-xam yi ci àdduna bi yëpp dañoo mujj dëppoo atte ne ñooñu ay yéefar lañ dañoo génn ci l'islam ndax pas-pas yu bon ñu gëmoon ak daan ko tasaare ci jullit ñi ci la yàlla def salahuddin al ayu al ayubi bi ñëw tam nekk d'origine turque nga xamante ni moom def na jihaad yu bari ci l'islam bokkoon na ci ñii wala bokk moom ci loxoom la yàlla libéré woon Palestine salahuddin al ayubi boobu moom moo daaneel seen nguur bi fadlillah moom moo daaneel seen nguur kon ñooñu ubaydiyun yooyu ñoom ñoo njëkk a feete gàmmu yonent bi alayhi salatu wasalam waaye ñooñu mën nañu fay am baax gu toll ne di def jëf yu baax yoo xam ni saxaaba yi xamuñu ko ñu jiitu ci lislaam borom xam-xam yu mag yi bu doon lu ab saxaabi yi def wala nit ku tedd ku baax ci lislaam borom xam-xam bu ñuy coow di tudd mbi turam ci lislaam ni ñu di ko fàttaliku bu doon moom moo ko sos sax fentoon ko ñu mën a sax wax ne ah loolu day kon jar na xoolaat mais gaa yu mel noonu ñoom ñoo fent mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu mën nañ fay am ci bëgg yonent bi alayhi salatu ak màggal ko bu raw ni ko saxaaba yi raw bëggee woon est que loolu mën na nekk bu doon gàmmu feete gàmmu rek jëmmal sa bëgg ci yonent bi alayhi salatu wasalaam la est ce que saxaaba yi duñ ko ci jiitu ndax moo leen gënoon bëgg yonent bi alayhi salatu wasalaam moo tax loolu ci kanam dina ñëw ci ci ci ci yi nga xamante ci la ñuy teg pour firndeel wan ne seen gàmmu yi ñuy yi ñuy feete ni ay caaxaan la ak wax yi ñu ci wax problème mooy dañ ciy wax wax dañ la koy ragalloo dañuy wax ne la bëgg yonent bi la yaa yonent bi lañ ci lañ ciy tagg di ko ci kañ bi te yàlla xam ne tagguñu yonent bi seen i maam la ñuy tagg c'est que nag dañuy mbubboo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que léeg-léeg ngay tudd ko am daraja ak barke pour yow tamit yëkkati sa bopp tuuti sax wala la parce que euh, mooy ne lii la woon mooy ne gàmm yi bu ci nekk dañ koo suub dañ koo cuub benn cuub gàmm bu ci nekk dafa am dafa am couleur bu mu bu mu jël gàmm yépp bokkuñu sax wala la bu ci nekk ak fañ koy askanale ak la ca as aju yépp ak lañ fay wax ci ay mbir tayib kon ñooñu noonu ci ñoom la euh, kii boobu jóge la la la la feet feete gàmm boobu xew-xew boobu jóge léegi ci loolu jàll dañuy wax ne feete gàmm mën nañ koo dàq ak saxam ci lislaam parce que yontu bi alayhi salatu salaam defu ko woon digalu ko woon ay saxaabaam digalu ko kenn kuy ñëw ci ginnaawam ne ko na feete gàmm dina ñëw ci kanam ci ñoom seen i tegtal ne yontu bi alayhi salaam daan na woor bésu altine ñu laaj ko mu am lu mu ci tontu loolu dina ci kanam incha allah te yàlla subhanahu wa taala ngi wax ne képp ku wuute ak yonent bi wuute ak jullit ñi yoon wa ñu jaar nee na kooku moom ku réer la yàlla subhanahu wa taala dig na ko mbugal wa man yushaqiqi rasul mooy aaya bi borom xam-xam yi tegtaloo ci xujjiyatul ijmaa mooy mushaqaqatu rasul ak mushaqaqatu tariqil muminin mooy mooy yonent bi mooy yoonu gaa yi gëm yàlla yi jaar mooy yonent bi ak ay gaayam ak ay saxaabaam kon képp kuy def loola seen ginnaaw te ñoom defuñu ko woon wuute nga ak ñoom yoon woo jaar loolu moo jiitu ci li ci bunt yi nga xam ne ak tënk yi nga xam ne ci la ñuy neenalee saxu gàmmu ci lislaam beneen bi ci des mooy ne képp koo xamante ne bi da ngay jëfee lu mel na gàmmu di ko def ci biir lislaam tàbbi nga ci lu yonente bi waxoon ne iyaakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bidaa yonente bi laata mu fiy jógee dafa waxoon ne xeetam dinañ wute ay kuréel yu bari waaye li leen di moytandikuloo bu ngeen bëggee mucc ci wute yooyu ak coow loolu mooy moytu leen lépp lu ñu sos ci diine ji pourtant xadis boobu gaa yi ngi koy jàng bis bu nekk di ko dégg mais ci lañ sax gën a mën a yokkee ci l'islam iyaakum wa muhdathati al umur te muhdas li ci gën a doy waar mooy nit ki bu commencé di jëfe ay mbir ñu yokk day tax muy gën a doyadal ak di ñàkkal fayda sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam lu nit di gën a xër ci ay yokk ci l'islam rek di gën a doyadal sunna yonente bi te loolu lu wér la moo tax yenn salaf doon wax yenn ci salaf doon wax naan mabtadaa qawmun bidaatan fi l islam illa wa dayacu mislaha min as sunna amul ay nit yu sos benn bidaa ci lislaam lu dul ne dinañ suul dinañ sànq lu tollook moom ci sunna yonte bi alayhi salatu wasalaam koo fekk muy mooy ci sun ci bidaa yooyu di ci xër ne ci guddeeg bëccëg di ci telli telli xool ko ci sunna yonte bi alayhi salatu wasalaam du ci jëfe dara tayib beneen bi ci des <clears throat> mooy ne ki nga xamante ne bi dafay jëfe jëf boobu muy bidaa boobu muy naan dafay gàmm def na lu yonent bi alayhi salatu wasallam waxoon ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd ku jëf benn jëf ci l'islam te amuloo si suñu ndigal amoo si ndigalu yàlla amoo si ndigalu yonent bi alayhi salatu wasallam xamal ne yàlla da koy delloo yàlla da la koy delloo xadis boobu c'est clair yaa axi du du du sama wax du waxu keneen xadis mawjud fi saxih muslim bu doon sax ay xadis yoo xam ne comme ñoom ni ñuy def dem fekk ay xadis yu nekk ci mawduwaatu ibn al jawzi muy téere yi nga xam ne fa lañ dajale xadis yu wér yi ñoom fa lañ ñu dem <laughs> yu wérul yi téere yi ñu dajale xadis yu wérul yi xadis yi nga xam ne ay yu ñu sos la ci yonente beeg yu wérul ñoom ci téere yooyu la ñuy dem ci jël ay xadis pour tegtaloo ko yow en tant que yow mi góorgóorlu ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalam ci xadis yu wér ngay wër yi nga xam dafa tegu ci ay base ak ay règle yu leer ci l'islam ne xadis yi xadis yu wér la jógee ci yonente bi alayhi salatu wasalam te duñ la ko nangul mais loolu lu doy waar la kuy tegtaloo xadis bu mawdu kay war a mun a nangu xadis bu saxiix ma al asaf problème la man amila amalan ku jëf ab jëf laysa alayhi amruna fa huwa radd ku jëf benn jëf ci lislaam amoo suñ ndigal yàlla du ko nangu léegi ana ndigalu yonte bi alayhi salatu wasalaam ci gàmm ana ndigalu yonte bi alayhi salatu ci kii gàmm ndax yonente bi alayhi salatu moo ko digal ndax yàlla moo ko sant loolu dina dina na leer ci kanam bu ñuy wax ci seen subuhaat yi beneen bi ci des mooy ne di jaamoo yàlla ak di considérer gàmm ci ne ci l'islam la bokk mooy dafay mel na ngay contester wax ji yàlla wax ne al yawma akmaltu lakum diinakum bis ni que tey matalal naa leen seen diine dafay mel ne da nga naan yàlla matul gàmmu ci la da wax ji bu baax matul si jamono jooju nga naan mat na matul ndax gàmmu ci la te ginnaaw bi la ñëw beneen bi ci des mooy ne di ko jëfandikoo di feete juddu yonente bi alayhi salatu toppandoo ay yéefar la toppandoo ñu dul jullit la ñoo xam ne yàlla moytandiko loo woon nañu ñu toppandoo leen jël seenu yoon man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum man tashabbaha bi ghayrina man tashabbaha bi ghayrina fa laysa minna kuy toppandoo ñeneen ñu dul ay jullit bokkuloo ci jullit yi toppandoo chrétiens yi la nga naan dangay ngay tamit feete gudd sa guddik sa sa sa sa sa juddug yonant ndax jullit yi inspiré wuñ ko toppandoo wuñ ko lu dul ci chrétiens yi feete bi ñuy feete juddu Isa da guddi gi ñu wax ne moom ci la Isa judd parce que problème bi aussi mooy ndax guddi yi ñuy fixé naan ci la yonent bi juddoo ak Isa ndax guddi yooyu fi'lan ci lañ judd yonent bi alayhi salatu wasalam pour wan la ne fa saxaaba yi wu ñu woon ñu woon guddi gi mu judd def ko ab feet mooy ne borom xam-xam yi ñëw seen ginnaaw dañoo uute sax ci ban guddi la yonent bi alayhi salatu wasallam judd ndax ci ndax la huit ndax la six ndax la douze ndax la dix la judd ci rabiul awal boobu rek tegtal la ci ne kon woon date symbolique bu ñu mémoriser jàpp ko di ko féete parce que la demee kon borom xam-xam yi ñëw seen ginnaaw dañu uute ci ban jour la yonent bi judd da nga wax ji bu baax yow nga ñëw jàpp sa la douze ne ci la yonent bi alayhi salatu wasallam bu fekkee loolu nga tarjix fa huwa rajix indak ala kulli xaal kon toppandoo boobu tam mi ngi ci kon loolu tamit ba léegi firnde la ci ñu moytandiku jëf boobu beneen bi ci des mooy ne ab xas la su ñu woon jëfandikoo gàmm ak wax yu yi ñu ciy wax ak ne jaamu yàlla la lu baax la xas la ci saxaaba yi jiitu woon xas la ci ñu topp seen ginnaaw xas la ci ñu topp ci seen ginnaaw xas la ci ñu nit ñu baax ñooñu ñëpp jàll te kenn ci ñoom xamul woon luy gàmm xas la ci ñoom mooy xas la ci seen néew xam-xam lu ko woon xas la ci seen gàtt jaamu yàlla parce que lu tax jëfuñu ko woon kon xas bu rëy la ci ñoom le fekk ñoom ñëpp ñu dëppoo woon amul kenn ci ñoom ku xam jour guddi googu ne dañ koo war a feete dañ koo war a gàmmu màggal ko kon loolu xas bu rëy la ci ñoom yow la fait nga koy jëfe ak wax yi ñu ciy wax tamit <coughs> beneen bi ci des mooy ne <coughs> feete ko boo ko seetloo la ca nekk ci ay jëf ak ay wax yu rëy yi ñu ciy wax ku lu wax yi ñuy wax yi ci rajo yeeg télé yi wallahi alazim da ngay da nga yaakaar ne asamaan si léegi mu daanu nasaaraa yi dañuy wax ne yàlla moo jur Isa yàlla subhanahu wa taala ne asamaan si nar nar nar naa xotteeku nar naa xar suuf si nar naroon naa nekk nu mu tuddati lu lu xotteeku moom tamit euh, montagne yi mokk nekk poussière ndax seen wax boobu ñuy wax naan yàlla moo am am na doom ni mu rëyee moo tax yàlla ne kaburat kalimatan taxruju min afwahihim wax jooju ñuy wax di askan la yàlla doom lu rëy la mais tey boo dégloo gàmmukat yi li ñuy wax ci yonente bi alayhi salatu wasalam moo gën a sax garaaw li nasara di wax ci isa dégg ngeen wax ji bu baax yàlla subhanahu wa taala bindul kenn ngir moom lu mu bind muhammad a tax yàlla moo wax ne muhammad moo tax mu bind jaam ñi jaam ñi jaamam lañ muhammad jaamam la qul innama ana basharun mithlukum li ci gën a doy waar mooy alxuraan lañ fiy bàyyi di wax wax yoo xam ni yow da ngay la léeg ay question màggal yonent bi nekkul ci di ko di ko di ko di ko yàllal màggal yonent bi mu ngi nekk ci def ko mu nekk jaam bi raw ci jaamu yàlla yi ndax nit loo ko gën a tagg ci njaamu gi mu nekk jaamu yàlla mooy tagg nga ko est ce que da nga wax ji bu baax yonent bi alayhi salaam béréb yi gën a kawe yi ko yàlla gën a yëkkatee gën ko faa jox garab saa bu ko yàlla di tudd ci alxuraan abd lay jëfandikoo jaam mooy wane ni ak njaameem ci boppam garab la boo xam ni àgg na ci foo xam ne àgg ko ci leneen subhana alladi asra bi abadihi dégg nga wax ji bu baax abd lay jëfandikoo abd pour wane ni jaamam la moo ko sàkk mu nekk jaamam comme ñun ñii dégg nga wax ji yàlla gënale ko ci keneen ku dul moom cig njaameem googu nam ci rawee keneen ku dul moom kon ku lay raw rek cig njaameem gu mu nekk jaamu yàlla lay rawee mais du cig yàlla nit saa boo ko jéemee yàllaal rek toroxal nga ko dégg nga wax ji ñoom nag dañ yaakaar ni tagg yonentu beeg kañ ko mi ngi nekk ci yàllaal yonent bi santul kenn mu yàllaal ko nit mës na koo nuyu di lox mu ne ko defal ndànk man nit laa kom yow rek sama yaay fii la nekkoon ci ci màkk fii nii di di seel ay ay ay ay ay yeel di seel ay yeel wallahi lazim di la ko wax sama ndey bi ma jur fii la nekkoon ci màkk di seel ay yeel da nga wax a ñëw ne ko macha allah wa shita bu soobee yàlla soob la mun ne ko déedéet ndax dag maa bëgg a def ab bokkaale bu ñuy jaamu comme yàlla a jaaltani lillahi niddan qul ma sha allah waxda benn bis mu dégg leen ñuy wax ay wax mu ne leen la ni bu leen ma di di yëkkati kama atarat nasara isa bne mariam innama ana abdullah fa qulu abdullah wa rasul nekkuma lu dul jaamu yàlla bu ngeen di waxateeg man jàppee leen ma jaamu yàlla akub yonentam yonent bi alayhi salatu wasalam musul wax ne yàlla ci leeram la ko bindee musul am wallahi alazim bépp xadis bu ñuy tegtaloo ci wax yooyu ñuy wax ay xadis mawduwaat la yoo xamante ne saaqita moo gën a sax ñàkk solo sa dàll yi ngay nga teg fii nii bu fekkee xam nga tuuti rek ci xam-xamu l'islam ak xam-xamu xadis ngay fekk ñu ñuy askaneer ay kilifa ci l'islam teg leen fenn fi ñuy wax genre wax yu mel noonu wax yoo xam day màbb l'islam naan yonant bi moom la yàlla sàkk ci leeram ci leeram mu sàkk ci ñu ci des te yàlla xam la ne moom moo mooñ aadama ci ban sàkk ko ci ay loxoom li ma xalaqtu bi yadayya ci ay loxoom mooñ ko jël ban mooñ ko ne ko jógal mu jóg képp ku nekkati nit judd rek ci aadama nga jaar di alxuraan ju wër péng ay nit ne naan yàlla ci leeram la jël sàkk ci Muhammad jël leeru mu Muhammad sàkk ci nit ñi loolu wax jooju ay waxi lan la kon tey Muhammad yàlla la xam nga dañ bëgg a wax ne yàlla la xamuñ nuñ koy jaaree ñu nekk di wax Muhammad fu mu nekkee leer yéen te doomu aadama yàlla sàkk ko ci ban sàkk sàkk jinne ci ci ci ci safara sàkk malaaka yi ci ci ci leer amul kenn kum ci sàkk ci boppam yàlla dina jël boppam moom jëmmam di ko di ko jël ci sàkk dara loolu ay wax la ala kulli ay wax la yoo xamante ne ay wax yu yu ñàkk solo la yoo xam ni genre wax yu mel noonu nag la ñuy dajale nit ñi di ko wax ci guddi yu mel nii <coughs> lawlaaka lawlaaka xadis yoo xam boo demee ci <coughs> ci mawduwaat yi nga xam ne mooy kutubul mawduwaat moom nga fay fekk wallahi rabi mu fees fa del kutubul mawduwaat mooy xadis yi ñuy sos di ko askanale yonent bi te di ko sos foofu xadis nga fay fekk ay lawlaaka lawlaaka ma xalaqtul aflaak dégg nga dugg na ci génn na ci yàlla moo wax yonente bi ne ko budul woon ak yow allahul mustaan ab yonent la comme ni ko ay moroomam nekkee woon mu gën leen yàlla jiital ko ci ñoom jox ko ngëneel mu nekk mu jënteelu yonent nañ ko yemale foofu mais bu koo def yàlla moom loolu nekk lu wér te ci guddi yi malheureusement yooyu fa am léegi ñu dem ci subahaat yi ci gàttal loolu kon ay buntu la yoo xam ne buñ ko xoolee beneen b ci des ci ci buntu yi nga xam ne moom la ñu gën a sukkandikoo tamit ci dàq gàmm mooy yàq bi ci nekk gaspillage moo ci nekk dëkk bi day nekk ci moo tax bidaa day bokk na ci li daaneel économie dëkk seen bidaa yi ak seen euh, dugg na fii ñuy def nii dañuy dajale woote seen cérémonie yooyu njiit yi du tudd ay tur jox leen ay millions ñoom ñu jël ay million nit ñi jël seen i xaalis te liggéeyukaay yi dem dëkk bi toog ay fan yoo xamante ne day mel ne grève générale moo fi am moo xam ci gàmmu yeeg ci yeneen yi ñuy woote ay milliards moo ciy dem wallahi lazim nit ñi di souffrir dëkk bi nekk ci ay problème secteur tel pan nit ñi duñu toog pour xalaat naka la ñuy liggéeyee pour avancer seen dëkk mu développé mais ils préfèrent ñu jël seen i milliards di ko def ci yooyu bu ñu wootee yenn taalibe yi mobiliser ay milliards dugal ko ci yooyu boole ko sax di jooy yaakaar nañ moom texe nañ buntu yiw yi nekk fi fuqaraa yi nekk fi kenn joxu leen ko te loxo ñañ koy teg ñooñu sax bootu ñoo leen ëpp xaalis mën nañ leen a jënd ñu ciy mëbalewaat seen i kër di ci joxaat soxna yi soxna yi di gën a xeesal di gën a xolli dégg nga ak yu mel noonu yaa xëy yàq la yàq la seen yooyu ñuy def noonu lislaam santaane ko te yàq la léegi ci gàttal ñoom dañuy jël xadiisu yonte bi alayhi salatu salaam woor bi mu daan woor bisu altine daan na woor suñ bisu ajjuma ñu laaj ko lu tax muy woor bisu altine mu ne bis boobu ci la judd ñoom foofu la ñuy yem ne kon yonente bi alayhi salatu wan gis nañ ne woor na bis ndaxte parce que ci la ñu ne leen bu ñu xoolee bu ñu delloo ci xam-xam ñu wax scientifiquement wax ci xam-xam yonte bi alayhi salatu wasalam dañ ko laaj ne lu tax muy woor bisu altine du bisu douze rabiul awal mais bisu altine dégg nga wax ji bu baax du chaque le douze rabiul awal mu woor de bisu altine lañ ko laaj ba pare liñ ko laaj mooy woor muy ñaari mbir mu wax ne daf ci juddu te yemul ci loolu mais def ne parce que bis boobu ci lañ wàcce ci moom alquran wala ci lañ ko yebal dañ nga wax ji bu baax am ci yeneen xadis mu ne bis la yoo xam ne dañ ciy gaar jëfu jaam ñi te dama bëgg bu ñuy gaar sama jëf fekk ma ma woor mu nekk kon ay sabab yu mu tudd ensemble sabab yooyu boo ko boolee moo taxoon muy woor kon du benn sabab rek mais ay sabab la ñaareel bi aussi mooy du anniversaire la doon woor mais chaque semaine la doon woor dañ nga wax ñetteel bi mooy du ay toog di coow ak xaacu la doon def dajale gars yi ku ne lu mu waay xam jàng salaatu bu waay mën def dog bu waay mën def déedéet mais li mu doon def mooy da doon woor mu nekk jaamu yàlla boo xam ne bu mashruu la bu buñ buñ daganal la yoonal la ko yoonal ko la nit ki yonent bi alayhi salatu wasalam daan ko def kon yow boo ñëwee ne da ngay jëfe xam-xam rek ak jëfe roy yonent bi alayhi salatu wasalam parce que roy yonent bi dem na ba àgg ci ngay jëfandikoo ay xadisam problème bi tamit foofu mi ngi fa mooy ne xadis yi saa bu leen arrangé nga lañ koy nga koy dégg saa bu leen arrangé ñu génne ko téere yi ñuy dem di fa seppi xadis yooyu pour tegtaloo ko da nga fay fekk yeneen i xadis yu rëq seen digg mais fa lañ koy romb xam naa bu ñu romb sax dañuy tax page yooyu pour bañ koo gis dégg nga seppi xadis yooyu ne yonent bi daan woor chaque lundi mais wooral defal li yonent bi alayhi salatu wasalam ku la dajale loo gaa yi ku la tànnaloo le douze rabiul awal yonent bi sant la ko sallallahu alayhi wa sallam kon mënoo koo jël nga ciy xiyaas leneen parce que tijji buntu boobu ne da nga leneen mooy yàq ci diine que tax mooy nekk yàq ci diine mooy ne bu boobaa kon ku mu neexati nga gis yonent bi alayhi salatu wasalam def benn jëf nga ne man lii li ma ci déggee mooy ne kon saa bu nangam xewee mën ngaa def nangam mais yamal ci la yonente bi alayhi salatu wasalaam defee defoon buñ ko nangoo ñu ne leen def leen loolu ku mën a gàmmu ci loolu gàmmul chaque leen di yonente bi alayhi salatu wasalaam daf ko daan woor mu nekk sunna bu mu jàngale daan ko def digal ko saxaaba yi pour ñu def ko comme moom <coughs> ak itam yonente bi alayhi salatu la fekk mu dem Médine fekk yahudi yi ñuy wor benn bis mu laaj leen te xadis boobu la ñuy jël tëb beneen xadis xadis bi ñuy tëb mooy yonent bi daf fekkoon ahlu madina waxuma yahudi de ahlu madina ginnaaw bi ñu tuubee ba dugg ci lislaam ñuy feete ñaari fan mu laaj leen lu tax ngeen koy feete ñu ne ko dañ ko daan feete ci jamono ceddo mu ne bàyyi leen subhanallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne bàyyi leen yàlla wutal na leen lu ko gën yàlla wutal na leen yonent bi muy tere feet feet la tere da nga wax ci alors que fële yahud yi amuñu woon du woon iid da leen fekk ñuy woor benn bis woor nekk jaamu yàlla bu bu dagan bu baax mu laaj leen sababu koor gi ñu xamal ko ne ko yàlla subhanahu wa taala ci la muccaloon Moussa ci firawna ak ko xeetam ñu koy fàtt ñu koy woor ngir di fàttali ko xew-xew boobu ak di ko sante yàlla yontu bi alayhi salatu wasalaam woor ko digle ne nañ ko woor lu njëkk mooy ne yontu bi alayhi salatu wasalaam ci woor la dëppoo ak ñoom dëppoowul ak ñoom ci feet iid baatu iid ak baatu mu bokkul deful leneen lu dul woor yokkul ci koor googu lenn loolu benn la ñaareel ba aussi mooy <coughs> yonente bi alayhi salatu wasalaam dëggal bi mu leen dëggal ci loolu woor ko lu mën a nekk la lu yoonu la ci lislaam bu fekkuloon lu mën a nekk la du ko def est-ce que dégg nga wax parce que moom mooy kii yoonal di jëlee ci yàlla bu doon njuumte la yàlla da ko koy da ko ciy jubbant beneen mbir bi ci des mooy na ñun su suñu woor bisu ashura dañ koy woor parce que yonente bi alayhi salatu salaam moo ko digle paa ne yahudi yi ñoo ko woor ñu nekkoon ci madina gisoon nañ yahudi yi di woor bisu ashura te taxul ñu woor ko mais bi ko yonente bi diglee ci lañ ko soog a tàmbalee woor suñu def ko dañ ciy déglu yonente bi alayhi salatu salaam beneen bi ci des mooy du ñu jël loolu la fekk yonente bi alayhi salatu salaam woor bisu ashura def ko règle générale nekkoon bépp bis boo xam ne bisu xéewal la rek dañ ciy daal di léegi waxuma sax woor waaye def ko bisu fenn parce que ñoom loolu lañ ci déggee mooy ne comme comme ko war na bisu Ashura pour sante ko yàlla ci xew-xew boobu te juddoom moo gën a rëy loolu kon nañu feete bisu juddoom ñu ne leen déedéet buntu boobu boo ko tijjee xew-xew yi xew ci l'islam yi ñu war a sant yàlla bari na kon bis bu ne da ngay feetu xare badar jullit ñi gañe nañ feetul yàlla matal na diina ji feetul yàlla riñaana yonent bi jox ko julli feetul feet yi kon dina dina bëri loolu ci l'islam tànn benn bàyyi benn bu boobaa taxakkum lay tudd taxakkum mooy nga àtte te amoo tegtal mooy nga gënale lenn ci loo xam ni amaloo ko dalil beneen bi ci des mooy ne ubbi buntu boobu day yàq diine day yàq day yàq lislaam ndax yonte bi alayhi salatu salaam moo la gën a xam ne bu fekkonte ni juddoo euh, euh, juddoom moo gën a yey ci ñu feetu ko que bis bi yàlla muccal Moussa kon dina ko jàngale dina ko wax lan moo tax waxul ne ah sama juddu de moo gën a rëy yàlla rëccal gi mu rëccal Moussa su ma demee bay woor loolu kon feete leen sama sama bisu judd lu tax waxu ko yow miy wax di xiyaas di nattale di gënale lii ci li yonente bi moo la ko gënoon a xam te taxul mu digle ko saxaaba yi ñoo la ko gënoon xam te taxul ñu digle ko kon moo lay wan ne la loolu du lu wér da nga wax ji bu baax bu fekkee muus ak xel mu mat rek moo la jox nga dégg déggin boobu ñu ne la loolu wérul te li muy waral ci lislaam ay yàqute la yoo xamante ni kenn xamul fu mu yem. beneen bi ci des mooy wax di ñuy wax naan nit ñu baax ñëpp def nañ ko nit ñu baax ñëpp def nañ ko diw def na ko diw def na ko diw def na ko te loolu lu ñuy jéem a gagné sentiment nit ñi la mooy buñ la waxee benn wax nga xaw a kooki rek ñu napp la ne la ah diw de daan na ko def te digle na ko itam wax na ci lii wax na ci laa bu ko defee nga rus kooka wala nga warmaal kooka nga ne kon naa ko bàyyi l'islam kenn du ko déggee noonu diw nag def na ko kooku digganteem ak boromam la bu fekkee rafet njort moo ko ci yóbbu woon ak bëgg lu baax mais yàlla def mu def ko ci njuumte loolu digganteem ak boroomam la baaxaayu nit ça ne veut pas dire que ni day tegtale ne kon lépp lu mu defati rek lu wér la nit mënoo baax ba doo juum ci l'islam yonent bi rek alayhi salatu wasalaam mooy koo xam ne lépp lu mu def dañ ko ciy roy da nga wax ji bu baax keneen ku dul moom loo def wala nga wax ko dañ lay utal tegtal mais sa wax wala sa jëf kenn du ko tegtaloo kon loolu moo njëkk ñaareel bi mooy bu amee ku baax wala ñu baax ñu ko def ñu leen gën defuñu ko bu amee ñu baax ñu ko def am na ñu leen gën defuñu ko kon bu ko lee di tegtaloo rek ay nitam ah ñun de am nañ suñuy gaay bu ñu tolloowee ah yàlla moo ne woon in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul bu ñaari fois yu tolloowee kenn daanul dañoo njaax te loolu sa amul mais dañuy wax supposons ñu njaax nañ dellu si yàlla ak bi yàlla moo ne bu ngeen utee ci mbir dellu leen ci yàlla ak bi yàlla ak yonente ñun lañ faral jëf bu wérul kon tegtaloo ne ay gaay yu baax def nañ ko kon jëf bu mën a nekk la loolu du ay wax ay wax la yoo xam ne léeg-léeg dem ba ñàkk pexe moo leen ciy yóbbu beneen bi ci des mooy la fekk ñuy wax naan waaye mbir mi daal lu baax la tudd yàlla dong lañ fay liggéeyee ak kañ tagg yonente bi alayhi salatu wasalaam ñu ne leen loolu du ko tax a baax de bu doon loolu lu neex waaye mu def ci lislaam ci tuddee ko tur bu baax wala wax ne lu baax jëmmi rek ne lu baax la tudd yàlla laa fay def nangam sàngam lu tax yonente bi jàngalee ko comme que lu baax la yonent bi lépp lu baax ci suñu diine lu war a xam xamal nañu ko laata mu fiy jóge yow nga naan lu baax la nangam lañ fay def nangam lañ fay def rek kon waree su koo dàq ñenne dañuy wax sax ba ni ñëpp am nañ journée xale yi am nañ journée jigéen ñi am nañ journée ñëpp am yonent bi lu tax du am journée <laughs> allahu akbar maanaam bu ñu ñëwee ba léegi diine ci noonu la ñuy waxee terre à terre bi foofu la àgg buyeboo nga toog sa kër allahul mustaan beneen bi si des mooy lu baax rek lañ fay wax lu baax rek lay jur am na ñu bëri ñu ciy tuubee ci lislaam <coughs> te yooyu yëpp ay show yoo xam dañ koy def pour émouvoir nit ñi parce que kon tuub jarul ñu lay indi ci kanamu nit ñi nag ba gars yi war a dañ leen di dajale sax ay fan yi fan kuy tuub ñu recensé la nag ba bis boobu ñu indi leen ñu dajale leen indi leen yëpp pour def ay ay démonstration wan ne tuubal nañ ñànga minute ci bis boobu wallahi bis ba mu ne dafa bëgg a dugg ci lislaam julit ba mu njëkk a dajal mënoon na ko sàkk baatu seede yi mu dugg ci lislaam mu te yóbbu ko ci borom xam-xam mu jàngal ko diineem soo boobu yëpp jaru ko woon wallahi lazim ñaareel ba mooy daawa nit ñi woo nit ñi ci lislaam pour ñu dugg ci lislaam dafa war a am bis yëpp du bisu gàmmu dong la war a am dañuy wax di bu baax beneen bi ci des mooy ne bu fekkee da ngeen ni am na ay yu ci am ñu ne yàq yàqu ci juddoo moo gën a rëy ndax diine lay yàq buntu bidaa ak sos bi muy jur moo gën a dangereux foofu ci l'islam li ngeen wax ci ay jëf yu baax ne da ngeen ko faa def te jëf yooyu nit ku ne da nga ko war di def jëf yu baax yooyu nit ku ne da nga ko war di def bëree bëgg yonente bi la bëgg yonente bi bis bu ne dafa war a bëgg yonente bi alayhi salatu wasalaam jëmmal jëmmal sa bëgg yonente bi bis bu ne jullit da ko war a def mais waruñoo nag ba bis yooyu xew ñu dajale ay tànt dépenser ay millions ajaay yi ñëw toog xeesal ku gën a euh, saf mbasin ñu ne kii la dégg nga àllukat yi ñëw toog lu gaay lu waaye xam wax buñ paree tasaaroo ñu ne léegi dañuy jëmmal bëgg yonte bi alayhi salatu wasalam dañuy feete bëgg yonte bi alayhi salatu wasalam bu ñu nax suñu bopp ala xaal nekk nañ ci jamono joo xam ne diina doyo dina doyali goo xam ne mën nga sax wax ne xëy na ñi jiitu woon ci lenn ci ay boroomi xam-xam yoo xam ne tàbbi nañ ci jëf yi mën nga sax wax ne léeg-léeg seen i yéene mën na tax rek yàlla jéggal leen seen njumte ci jëf yi mais problème bi mooy jamono ji dund moom ay caaxaan ci lañ nekk ay caaxaan yoo xam ne li ñuy def caaxaan la gën a nuru diine ndax bu doon diine rek moo ñu ñor tax ñoo jóg am na yeneen yu ñu war a tal yu dul yi ñuy def jullit ñi nag fi mu nekk dañoo nekk ci ay nelaw mais liy yot ci ñaag ci ci ci ñag bi la jëm malheureusement damay ragal bis bu ñuy dem bay xippi di gis fekk bay wey bay wey na mbuus maanaam fekk mu taar fekk mu taar mooy ne yow dafa jot dafa laaj jullit ñi xamaat seen diine ñu wax leen kan mooy Muhammad alayhi salaatu salaam te bàyyi soo yi ak coow li ñoom xam nañ ñi li ñuy wax ci yonent bi du tax nit ñi xam yonent bi alayhi salatu wasalaam parce que xam nañ seen lawlaaka lawlaaka yooyu du tax nit ñi xam kuy Muhammad li ñu war a jariñ ci moom ñu jariñu ko ci moom mais ñoom ñoo koy def exprès que dañoo bëgg nit ñi xam seen maam mais du ñu xam yonent bi moo tax bu ñuy wax seen i maam dañ ciy wax lu leer lu nit mën a dégg mais bu ñuy wax yonent bi ay lawlaaka lawlaaka rek la ñuy wax dégg nga wax kon nit ñi dafa laaj ñu xamalaat leen kan mooy Muhammad ibn Abdullah lan mooy mission lan moo ñu jokkale ak moom lan mooy suñu taxawaay suñu diggante ak moom da nga wax ji bu baax nit ñi xamaat seen diine xam yàlla xam yonent bi te nit ñi nekk ci diggante bi di nëbbu weer wi ñu jëlee leen fi parce que fi nekk gars yi di waneetuñu weer seen bopp la ñuy wane léegi nag problème bi mooy ñu ngi dund ci jamono joo xam ne nit ñi léegi dem nañ ba sori ci l'islam xamatuñu l'islam nit ñi réer gi sori na te lépp li ko waral mooy ay gars yoo xam ne ñoo frankulaay ci kaw bopp bi seen i intérêt ne ca ñu koy sàmm loolu moo fi nekk moo tax wax ci genre thème yu mel ni sax léeg-léeg daanaka mën nga fee bàyyi xadis yeeg aaya yi toog rek jàpp seen ndigg yi di rëq mais loolu léeg-léeg du xam-xamee pour wan na ne maanaam wax ci ñoom critiquer leen rek lu yomb la parce que lu jaadu ku koo gis ku ne xam na ko ku bëgg a jëfe sunna yontu bi alayhi salatu wasalaam rek bëgg ko bëgg koo jëmmal ci sa jëf wax dëgg yàlla bis bu ne war nga caane bis bu ne war nga di jëf nit ñi ak di jëflante ak nit ñi wala nga wax leen lu tax ñu xam ne yow mi ku bëgg yonent bi alayhi salatu wasalaam nga mais loolu yëpp dara amu ca léegi nag li fi nekk moom ñun ñëpp ñoo gisandoo gën a lu jàng suñu diine jëfe ko ñaan yàlla subhanahu taala mu sàmm ñu sàmm l'islam l'islam toll na koo xamante ne nañ ñaan yàlla mu sàmm ko surtout suñu dëkk yi ndax doy na waar doy waar boo xam ni am na ñoo xam ñoom ñi ngi liggéey mais jullit ñi ñoom defuñu dara fi mu nekk nii wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain